rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraa'i barki maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina mbokki safoo saa su ne di teewlu seen émission Jazboul Mouride ak seen télévision Lamp Fall ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tàmbale si nuyoo beeg ziar bi Serigne Cheikh Muntaxal Bachir Mbacké di ko ñaanal sunu borom guddal fanam lool euh, te mu ànd ak wér waaye di ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi toog jotaay bi maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi lool te mu ak wér di beral nuyoo ak ziar sëriñ Cheikh Ngunda Fall mi sunu yaakaar te ak ëllëg di ñaan sunu borom kattanal ko ba li mu yéene liggéeyal maamam mu defee ko lu koy njortam te ànd ak mbokki taalibe mbokk yi am te di dellu ci waat si jotaay bu tedd bi ñuy ànd ak suñu jëwrin sëriñ Mamour ndaw Baye Fall di ko ziyaar bu baax a baax sëriñ Mamour ndaw soo xooxee xel yëpp dem si Baye Cheikh ndaw mu mag ma di ñaanal Baye Baara ndaw suñu borom dool lii ngërëmam te ziyaar bu baax a baax sëriñ Amdi Moustapha ndaw suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér mm-hmm. am nag tey mbégte dalal ay gan yu tedd ay gan yu mag sëriñ Ahmadou Ndiaye ngiraan mi ñëpp xam Mm-hmm. di boroom xam-xam. Mm-hmm. di kilifa di jëwrin di ñaan sunu borom kàttanal ko bu baax a baax ba li ñu bëgg a dégg euh, mu defee ko nu kawe njortam. Mm-hmm. te ànd ak mbokki taalibe yi rawatina Serigne Cheikh Fall Taïf mu yi nga xamante ne suñ ko waxee xel yëpp dem si borom Taïf. di ko ziar bu baax a baax ñoom jóge si dëkk bu sell ba Touba Daarul Quddus lépp nag jëm kon si wàccaayu euh, màggal gu màgg googu. di Magaluk Daru Kudus ñu gën min si kon Magaluk Daru Kudus hmm. eh, di bis eh, bi nga xamanteni manam eh, maanaam bisu murit la hmm. kon ñu bayiko xel ba xamna dina gëna yaatu suñu ñëwee ci mbokk yi waxtane nak diggante Cheikh Mouhamadou Mustafa Mbacké radiallahu taala anhu ak Mam Cheikh Ibrahim Fall Babul Muridin Serigne Mamadou Ndaw assalamu alaykum na ni am nañ gën tay am nañ gën kay tey <laughs> billahi min shaitanir irajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ansirara xalxa wa rasaaya wa jinna wa saytaani wa balaaya maa balaayi wa maa amraadi wa bridaton xaadu bi amraadi asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñu toog fii seen télévision Lamp Fall ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo yëpp ak ziar yëpp ñaanal sunu yaakaar Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér ñaanal ko ba naal yim naal ngir liggéeyal ko sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko yeggale ci sagom ba sumb yeneen dañu ànd ko ak moom di ko ñaanal baax Serigne Cheikh Jëmm Fall ak njaboot gi yëpp di ñaanal taalibe yëpp di ñaan sama borom dafa leen yàgg ak wér ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ni nga ko waxee léegi rek eh, ñuy waajal bis bu tedd bis bu màgg muy bisub màggalub daaru xudóos xam nga ne bis boobu mooy bisub yoonu murit gépp bis boobu mooy bi sëriñ bi ñibbisee Touba Cheikh Mouhamadou Moustapha sëriñ bi santoon ko mu indi ko Touba mm-hmm. euh, def dégg nañ ba tàyyi ci sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan mu wax ne Eh, indi gi indi sëriñ bi Touba loolu la wax ne bu egsee nañ ko ko ci santale sëriñ bi di ko santale yàlla ci ndigal li nga xam ne sëriñ Touba Cheikhul Khadim joxoon na ko ko ndax xam nga ne bis boobu moom ni ko waxee rek sëriñ Touba Cheikhul waxoon na ko digganteem ak boromam mooy bis bi nga xam ni mooy bis bi may dajeeg yow mhm. te bis boobu ñoo ngi ciy ñaan àgg ci ak jàmm ak salaam dugg ci ak bisimilah maanaam génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp rek euh, lépp luñ ci jëfal Serigne Touba Cheikhul Khadim ñaan suñu borom fulal nu ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaye santaat bu baax a baax itam tey ci eh, sunu jëwriñ ji nga xam ni moo ñu gane si ci suñu jotaay bi tey di Jazboul Mouride nga xam ne ñu ak moom ñoo ko bokk ndax xam nañ pas-pasam ci yoon wi waaye xam ak soññeem bu baax a baax itam waaye gëstu bi itam macha allah lépp rek teg ko ci xam-xam ak gëstu bu leer muy sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan di borom xam-xam di ko bëgg Serigne tubaa waaye di ab taalibe bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall di ko dund saa su ne itam ak Serigne Cheikh Diop Taïf nga xam ne moom moom tam miin nañ ko bu baax a baax muy jàmbaar yoo xam ne jamono yëpp xam nga sëñ Aliou Badara ñi ngi waajal eh, wàllu exposition beeg liñ ci dara jaale maam Cheikh Ibrahima Fall lépp di ko dox ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci dajeek tawfeexam ñu dalal ko tey nag ci biir jotaay bii ngir ñu waxtaane diggante Cheikh Modou Moustapha Mbacké waaye ak maam Cheikh Ibrahima Fall ndax lu ci bëri dinañ du ñàkk dinañ ñu ci ñëwal ndax wàccaayu màggal gi lañuy ñuy waxtaane mm-hmm. waaye ñoom ñaar nag am na lu leen suñu borom boole woon mm-hmm. eh, te ci loo xam ne lu yàgg la ñu ko doon gannaaw mën naa ne ci nekkuk sëriñ bi sax mm-hmm. ba bi fi sëriñ bi bàyyi itam Cheikh Cheikh Ibrahima Fall jël léppam jox Cheikh Mour Moussa mi nga xam ne moom la fi ku tedd ki sunu yaakaar Cheikhul Khadim bàyyi te eh, mu jiite yoon wi loolu muy liggéey bu am solo boo xamante ne bii Cheikh Ibrahima Fall liggéey ànd na ko seex moom Mour Moussa du ñàkk yooyu yëpp sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan tey daal wolof li ñuy wax ko am gën tëraan yi waaw incha allah <laughs> ndeysaan di jiite bu rafet ndeysaan boo waral li yëppam tey mm-hmm. euh, sëriñ Modou Moussa Mbacké mm-hmm. sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan asalaamaaleykum waaleykum salaam sëriñ Fadara mm-hmm. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. باكي جلدي باكي تلبي نجني يب تدين زيار باخ باخ. نجي تلقيني بنا كل فجور. شيخ محمد المنتقى نيان سون برام جابلك. كم مني باي مدرك سام. قال بوتي درسو بارك الشيخ الخبير. نجني يب باخ كل فجور تايبي دي سين شيخ جمبو. بعلم جابو تشيخ الخبير. leen ñaanal bu baax a baax suñu borom gën leen a taxaw mhm. gën leen a dëgëral mhm. ba li leen mag ñi bàyyi woon ñu yóbbu ko fu gën a kawe fa mag ñi doon xalaat mhm. ni mbooleem njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp fuñ fi mën di nekk ci biir réew mi ak biir biir réew mi ak biti bi ñu ñaan suñu borom defal nu tawfiix ak tayseer te sëriñ bi nangul nu lu ñu doon ci moom barakatu Cheikhul Xadim jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan ñu ngi ñëwaat si yow léegi incha allah gannaaw bi ñu joxee kàddu gi sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax a baax di wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Alioune Badara ñoo ngi lay fay am mm-hmm. di nuyu sëñ Mamour Ndaw mm-hmm. di boobu nag di ko teg seen loxo. Mm-hmm. ngeen tegal ñu ko ci kilifa barab bi ñëpp rek. ginnaaw bi ñu sofee suñu nuyoo ci ni ko sëñ Ahmadou sofee ki jiite yoon di Cheikh Ahmadou Mountakha waaye ak sëriñ Cheikh Jëmbu Fall ak njaboot Xadim gépp di ñaan dal nuyo bobu suñu borom nangul ñuko di ñaan li ngeen ñaanit yalla suñu borom nangu ko di ndokkeel ñi ci barab bi ñepp rek xamna kon dañuy taxawal non inshallah jeri mhm. jeuf xamna ni fiñuy tambalé tàmbalee mamou mhm. ñew ci euh, serigne Ahmadou ndjay ngiran niñ ko waxé mhm. di waxtane digënté bo xamanteni lu jar waxtane la. di euh, Cheikh mohamedou Moustapha mbacké ak mam Cheikh Ibrahima Fall. ndax ñepp xam ni borom yoonu serigne touba khadim rasoul Rasul. buñ ko noppé gis ci suñuy gëtt mom Cheikh mohamedou Moustapha mi nga xamanteni Mm-hmm. ci li ñu xam si zahir moom moom mooy ki ki ki ki ki ki jëkk si sëriñ bi mm-hmm. euh, ci ci ci ci wàllub ñi ñuy tudd tudd sëriñ bi waaye doon ki nga xamante ni moom moo ko njëkk moo ko njëkk a wuutu mm-hmm. waaye loolee nga xamante ni euh, ba mu koy def ànd nakaak mboolem ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak euh, sëriñ Tuubaa ci yoon wi di di di di mbokki deret ak ñi nga xamante ni ay mag lañ waaye it maam Cheikh Ibrahima Fall doon si koo xamante ni moom na taxe woon si Mbàkke Kajoor rek mel ne ni noonu la àndeek ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Mm-hmm. mbokk yi ñuy del siwaat yëkkati suñu kàddu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah ñi andi benn tomb rek ci biir mm-hmm. fàttalante ji itam mm-hmm. muy tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel muy ay relation yoo xamante ni dafa jiitu te mag ñi doon ko rafetal ba mu agsi fii mu agsi tey mhm. loolu ñu war koo waxtaane buñ ko waxtaanee nag mag ñi dañ ciy fàttali ko gone yi dañ ciy jàng mhm. te ñu gis ni tomb yu am solo la yoo xamante ne nii dana fësal mhm. taxawaay bi nga xamante ni mag ñi amoon nañ ko démb ci ndonu lii nga xam ne moom la leen Sëñ Tuubaa waroon koo sàmm te Serigne Cheikh Mbacke daan wax ni wa ma alal xalaf illa an yasuna asara salaf mhm. ki wóotu moom li ko war mooy mu sàmm lim fi fekk mhm. mag ñi sàmm nañ ba ñu doon sàmm ñoŋ na mhm. loolu nag di ay tomb yu fasantikoo yu am solo yoo xamante ni nii jiitu na fiñ ko bëgg a tàmbalee muy gannaaw sëriñ bi jiitu na loolu ndax euh, damay wax ni réewum Sénégal dafa xat mm-hmm. ñun ñëpp ay bokk lañ mm-hmm. ci wàllu deret mm-hmm. ndax ak bokk dafay law ak lawtan la daam loon ci suñ boroom sant muy rafetal ko ak dundal ko te toujours damay wax ni Sénégal bu ñu xamoon li ñu bokk bari na yooyu xew yoo xamante ni du xew waaye ñàkk xam nga tax na lu bare bari di demee noo xamante ni nii wër woon a demee noonu dañ ni sa mbokk moom sa bopp. sa mbokk sa bopp. sa mbokk sa bopp koo xam sa mbokk. Mm-hmm. koo xam rek sa mbokk. waaye sa mbokk moom sa bopp. te ab cër du fopp lu metti di ko teg ci moromam cëram. Mm-hmm. te yonent bi ni mu nu digaloon nu dundee ko mooy nu mel ni jënn jëmm. Mm-hmm. jëmm nag am nay cër waaye teewul rek ci jëmm ji la aju. loolu laal ci cër nag lu mu tuut tuut jëmm jëpp dana ko yëg. moo tax li sëñ Moussa Ka di wax lépp looy waxtaanee. Mm-hmm. te gëstu cosaanam mm-hmm. boo sàgganee ñu wan la ab safaanam moo tax ñu bëggoon a indi tuuti ci ak bokk bañ xam ne am na fu ñu tase démb mm-hmm. relation yi yi juddoo ci muy yu pas-pas yi waaye am nañ bokk ci wàllu deret loolu itam dafay bata xam waaw loolu sax daana ci am solo trop itam ci ni ko histoire baaxoo defee Moy nit day am ay wajur ndax kenn xeyru xey rek cëppeelu ci aduna da am nonu sun borom jaarale ban dik jamono waye buñu waxtane rek da nga daal xam ki ñi waxtane kan la ak yeen taxaway la war ndax kenn mënta niru bokk jambur kenn ku nek say bokk rek ngay niru waye buñu ñu waté ci histoire da nañ gis jigen ju ñu wax Senaba ba gay Gaye ba gay ak Aram gay, mhm. ak Caane gay, mhm. ñooñu Masamba gay moy seen bay mhm. ak ku ñu wax Ware Ngom Ware Ngom Jéey teeñ Fabi Lagar ci neegup jaafuñ la bok ñoñu njabot gu barkel la ci sun borom génne bo xamanteni mëno waxtane histoire te genn wi ci ndax Sénéba gay moom yi moo jur ale Sénéba loo hmm. ak mbërgu seneba ak njuga Sénéba ak njaay Sénéba ak binta seneba hmm. ale Sénéba loo senegal yëpp xam nañ ko ndax bari na koy tudd ci ndaam hmm. te foofu la sut waaye ci gàttal rek ñu génn ci ay grandes lignes yoo xamante nit danañ mën a sukkandiku ci li ñuy wax ba xam ne du lu ñuy sos du lu ñuy fortal ale sana ba moo jur yalla lo hmm. yalla mo jur aminta yalla aminta yalla sa xewal faat mi bayam bàyyam hmm. aminta yalla woom mi mo jur kharimam hmm. xarimaam sëñ ki njaga isa ko jur kharimam mom mo jur soxna aminta lo soxna aminta lo moy wajur cheikh mouhamadul mustafa ak cheikh mouhamadul lamin tuddoon naa ci bir mbargu ba nga xamni sana Senaba gay mom moko jur mbargu Senaba mo jur bàll mbargu mu jur buri samba mu jur soxna saliloo mu jur soxna antakan muy waajur Mamour Anta Sali muy waajur Seexul Xadim dañ ci gis ni itam njuga sena ba tuddoon naa ko sànq mu jur maxtaar njuga mu jur masamba soxna jaañ mu jur madun awa jama mu jur sëñ daam abdourahman loo loolu itam njaay sena ba mu jur aram loo mu jur faat ma jóob mu jur fawad wele mu jur alaaji malik binta sene ba moo jur Ngoné ture mu jur faat Dieng mu jur Koura njaay mu jur Maram Xàcc mu jur Lawbe ture mu jur soxna sa Lawbe mu jur soxna Fatou Issa muy ma waajur maam Thierno Birahim genn nga gis ni Aram Ngay tuddoon naa ko moo jur Kumba Diagne mu jur maam njaay mu jur soxna Balla mu jur soxna Seynabou Ndiaye muy waajur maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Saliou Fall ak mm. soxna Astou Diop Lalu di bok mm-hmm. go xamé sun borom mako rab mm-hmm. ndax may wax ni kenn tanalul sa bop ay bok mm-hmm. sun borom mo set ñuko bok bokk neex mu boole ci loola te ci wane rek ci démb amon nañuy cër laata sëñ Tuubaa di ñew sëñ bi nag toujours da ngay wax ni day wane wo xamé lu mu dugg soppi ko <laughs> <laughs> waaye mag ñi amon nañ ay cieur demb ci juddu ak jikko yu rafet laata sëñ bi yalla te ginnaaw boo xamante ni réew mi jaxasoo na it mhm. ña amoon mhm. nga xam ne ñoo ca gënoon mhm. biñ ñëwee ci lislaam it ñoo la gën dañu ku la gënoon ci jaahiliya rek bu ngeen bokkee ñëw ci diine lislaam moo lay gën masha Allah ba tey du yam foofu buñ demee ci wàllu njare ndax Cheikh Ibra boo ko tuddee tudd njare njare eh, ku ñuy wax Sayar Maram Njaay ñii la jaboote Saliwu sa Diop ci ñi mu jaboote la sëriñ Ndiaye Fatma Diarra ci ñi mu jaboote la sëriñ ma Codé Ndiaye ci njabootuk Saer Maram la sëriñ Ibra Ngone Ndiaye ci njabootuk Saer Maram la sëriñ Saer Ngone ci njabootam la sëriñ ma faat ma ak Abdoulahi Ndiaye ñooñu ñooy góor ñi mu am soxna Roqee Ndiaye ak Kumba Saar Ndiaye ak Saar Ngone Ndiaye ak Fati Saer Ndiaye ak Fakumba sëñ ñaa ko Njaay ma Jaara moo jur Maam Mor Njaay Maam Mor moo jur sëñ Daru Asan Njaay mm-hmm. Mm-hmm. Roqe Njaay moom yi ma tudd muy seenub jigéen moo jur Ahmadou Fall Roqe ya mm-hmm. muy waajur Maam Cheikh Ibrahima Fall <laughs> kon da gis ni ci <coughs> bokk yu baax a baax fa la bàyyi ko démb tey door a ñëw surtout Demba Njare yi itam ndax Demba Njare moo jur Samba Sadio mu jur Omar njay mu jur Bakar wak, mhm. mu jur Ma njay Fatma mu jur Sayar Maram njay mhm. Sayar Maram moy mami, mhm. Cheikh Ibra ndax moy mamam ndax mami, maami sëñ Amadou Fall roqay ndax moy jur soxna roqay njay mi ma wajuru soxna roqay mi wajuru soxna Amadou Fall roqay kon day ngiss ni ci walu doomi soxna man nañu kon ci doomi soxna yi la bok ndax kër gi moom alxuraan lañ leen xamee mhm. ak jaamu yàlla kon ak jaahiliya génnoon na ci bu yàgg yàgg mhm. ndax ñi ñu tudd moom ak tur yi boo ko déggee mhm. nga xam ne lislaam may seen cosaan su dee ci ganeen wàll gi ci des ndax xamante ne ni ak ngër mi la loolu itam day lu ñu fekk ci réew mi ndax ñaari titre rek moo amoon ci réew mi mooy ak ngër mi ak doomi soxna bokkul ak ceddu ak ceddu jikko la. Mm-hmm. ngër mi deret la. dëgg la <laughs> waaw a ràññee mm-hmm. dafa jar a mm-hmm. bu baax a baax. ceddu jikko la. waaye ngër mi moom deret lay topp. waaw te ngër mi démb <coughs> amoon nañ ngor. amoon nañ jom. ngor. mooy bañ a ñaaw rek. ngor ba ngor jeex li ko wala fi tekkee tekkiwul lool wala fi dañ naan ñaari goro ma jur ma ñetteel leen. loolu taxut a doon gor. gor da ngay bañ ñaaw sa diggante ak sa boroom dëgg la ngay bañ a ñaaw sa diggante ak sa nawle yi nga seqal adduna. Mhm. jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw. te mag ñi loolu lañ amoon mhm. su ñu demee ci catégorie yooyu itam dañ gis. Mhm. ni démb. dammeel ma gisee Fall. te ñoo doon moom Kajoor. jóob ji ci Lat Joor la tàmbale te ci ngóor gi ci ndeyam la ko doon. waaye Fall lañ sant dammeel ci kayoor moom Fall la daan sant loolu rek moo ko indi ci Lat Joor mhm. ñu gis ni moom it danañ gis ñaari ci njabootam mhm. nga gis ni kon ca fal ga itam mhm. ba ci Seex Ibra génne yàgg na ndax Baraan Fall ak Yoro mel na ni ñooy ñaari doomam waaye kee daa sàkku ji nguur kee wuti xam-xam <laughs> Baraan daa demoon jàngi fuuta mm-hmm. wuti xam-xam mm-hmm. wuti alxuraan mm-hmm. kon kooka ba mu bàyyee nguur yàgg na laxasaa yu wuti yàlla ndax yàlla daa gën a woom ndax lii tey lépp loolu moo ko jóg ba mu demee itam ba suñ borom dimbali ko ba am njàngam matit a wàññi ko del siwaat kajoor mu del siwaatee kajoor sancub dëkk dëkk ba paalen dédd la ñuy wax mhm. dédd nag mooy garab yu bare bari yoo xam ne day jekk-jekk ni taras sax mhm. taxadoo mhm. bu ko defee adresse ba dañ koy daal di jël paalen nga ca dédd ba mu ngi mel ni mbàkke xewar mbàkke nga dañoo nekk ca xewar ga mbàkke saa ñànk mbàkke dimb dimb ga dafaa ne ñañ sant mbàkke ñu leen koy dàkkante la waaye genn genn mbàkke moo am euh, muy maaram ñoom itam loolu moo mooy li ci dëkk ñu wax ni dëkk boobu yi mu sancoon bind na fanweeri kaamil ci loxoy boppam loolu da lay xamal ne la rek ni nituk arxuraan la yàgg nañ ci arxuraan arxuraan saf na ci seen deret waaye bi mu dellu seen jógewaat paleen dëdd ñibbi si kër baayam njabe mhm. fekk itam mbokkam male yoro moom it ñibbi si na indaale la mu wuti woon kon ñoom ñaari ñëpp kenn ku ci nekk mhm. la nga doon sàkku ji indaale na ko kii am na arxuraan mhm. kii am na ngoo kan ku ne itam xam na jamono yooyu nguur ni muy ni muy doxee. Mhm. daanaka day pëccaxoo ma ne su ko organiser. Mhm. dënd yàgg léppay ànd. waaw waaye nit ki nga xamante ne nii daa seetlu te jublu boroomam. Mhm. moom mënatu la jaxasoog ku yor lool. ci taxoon ak it askan lañu woo xamante ni yàgg nañ ci kilifteef yàgg nañ ci bàyyante xel ak mayantey cër. loolu taxoon na. Euh, baran jabi moom demaat dànd leen tuuti ngir sori nguur gi. ngir mën a yar. ba li muy yar seen pas-pas du yàqu te rajax rajax ci kër gi itam du leen yóbbaale ndax gone dañuy dox diggam ak yu bare bare mu sanc fa mu sanc itam day am garabu sànqaay gu fa nekk moo tax ñu naan baraan jabi ma ca sànqaay ga kon dafay mel ni histoire jàngale yooyu yëpp ay adresse la yoo xamante ni dafa mat a xam mm-hmm. parce que damay wax ni sunu géwél yi dañuy sànni mm-hmm. maanaam léeg-léeg dañ lay jox adresse yoo xam ne daa foo mm-hmm. wala ñu jël nit dugal ko ci néeg bu mu dëkku mm-hmm. waaw ndax leeral gi xam ci sànni am na si solo lool ñàkk xam ki ngay waxal mooy tax léeg-léeg ñu boole yu yu bokkut waaw bi nga xamante ne ni loolu am na nga xam ni foofa daaray alxuraan la ko defoon dafa jàngale ne na baraan jabi ñu ni ma nga ca sànqaay ga xam ni métier mooy yar ak jàng ak jàngale te lolu moy méccam doomi soxol mm-hmm. lolu itam mo fi bàyyi l'islam ji mm-hmm. ba ni mu demee bi nga xamanteni ni yalla dogal na itam mu tollu ci samp kër mm-hmm. dan ni njare la dem demee jox ko soxna suñu wax sar ndjay lolu itam daf ci mata a xel bu baax a baax lu tax mooy yonent bi da waxoon ni iyyakum wal aruqa fa indal aruqa dasas dom balang ko yar doo xar bam judd iya. bam juddogul ngay tambali yar ba ci ah. hmm. waye bo xare bam judd am na ci jikko yo xamni ne ko dindi ndax deret la hmm. akhlaq wirasiya la te tambali yar moy wudal ko jiwu baax jiwu ci hmm. ndax dañ la am kenn ko am dom am ñew ci benn borom xam-xam mu jox ko ko ni ko dama bu nga yaral mako ko kooku ni ki yar ko weesu na mu delu bam amate dom mu fer rek mu ko ak lay tàyyee indi kooku delu waxat ko lam mu ni ko ki yar ko weesu na ko nak yaang may bëgga jaxal man indi naa fi ku toll ci dal jàng nga ni ma yar ko weesu na kii ma indi bis bi mu fere déet ségut nga ni ma yar ko weesu na mu ni ko waa bi nga bëggee ma yaral la ko danga ma ko waroon wax ma tànnal ndey ja kon ci tànn waajur wu jigéen ci la ñuy tàmbalee yaru doom mm-hmm. moo tax dañuy waxtaan yi li koy tax am solo mm-hmm. mooy sunu waxtaanee mag ñi fi ñu jaar mm-hmm. gone yi sampagut kër danañ xam léegi société bi ñuy tabax yan fondation lañ ko war a teg ngir mu mën a yanu liñ ci bëgg a teg parce que waxtaan yi loolu rek lay jëriñ xam na ñi mag ñi moom lañ doon am am nañ ko ba pare nun ñee nañ leen seenub cër mhm. parce que waxtaane borom xaalis mhm. ay bien yu mu am waxtaane nam def ba am xaalis mhm. moo ko gën bu ko defee ku am jom da daal di laxasaayo xam ne yàllaay maye boo laxasaayoo soo amul lu toll ni lam amit da nga am da mus dara moo tax may wax ni mag ñi bu ñu leen royee cër yi mag ñi am buñ ko amutit bu ñuy lim ñi baax des noonu ci boole faw ñu boole mënta ñàkk loolu mooy tax waxtaan yi di baax mhm. nga gis ni seer na feeñ na fii mhm. te lëggéeyum day dafa am solo trop mhm. trop trop ci doom maam du du du ay léeb nii rek ak léppoon la yoo xamante ne nii lu wér la daa am ku ñëw ci sëñ baara doon ko laaj ne ko lëggéeyum day ak ñaanu wàll lu ci gën sëñ ne ko lëggéey du tase wàll ba mu di ko ñaanal kon <laughs> gis ni ni melokaan yi gone yi mel ndey yi ci lañ te liggéeyam day daa yàggut mhm. fanweeri weer kepp la mhm. fanweeri weer oh. kepp mhm. mooy bi nga waneew lor ba doom ji fer la ca topp janeen doom ja ci da sa ko moom moo tax doom yi di wóote sëyb la nag daan wax ni doom bu nàmpee merum bàyyam su baaxee lu yàlla dogal la waaye ndeyam foggulu ko dara ci laa ilaaha illallaah kon loolu mat naa bàyyi xel sëñ Basiiru tam daan wax ni portaatum soxna poñoxtiitum doom Hmm. surtout légui nga xamanteni ci net beeg whatsapp beeg yoy la takanté ah, motax divorce bi bari waaw ah, lool sax parce que jikko yi <laughs> ah. defaru mhm, mhm. motax mom bamuy tak da takk wat ci keur kër nijaay mhm. ba mu jëli fa soxna suñu wax sar Njaay motax tax mu am fa Amar Fall sar Njaay loolu moy moy moy indi dakantalo sar Njaay nga xamanteni ni la Amar Fall sar Njaay jigen ba lañ koy dàkkantal ak mhm. ñigéntal ba dañ koo dàkkantal ca yaay ja mhm. ba matee samp kër it moom it amar ba matee samp kër moom it daa delluwaat njare mhm. kër nijaayam parce que foofu la yaayam jóge woon moom demee ñu jox ko soxna roqee njaay moom sayar maram mu am ci ahmadou fall roqee nga gis ni ba tey ca déegu doomi soxna ja lay dellu naka noonu itam ahmadou fall roqee ba matee samp kër moom it foofee ay bokkam jële woon fa la delloowaat loxoom mm-hmm. am fa soxna suñuy wax soxna sëy na bu njaay mm-hmm. doom bi Balla Fagé mm-hmm. moom lañ ko jox mu am ci Cheikh Ibrahima Fall am ci sëñ Saliou Fall ak soxna Assou Diop Cheikh Ibrahima mu tudde ko nijaayam Ibrahima Ngoone tuddoon naa ko ci doom sayar maram yi mhm. mhm. sëñ Saliou mos tudd ko Saliou Assa Diop mhm. ñoo Saliou ndax Njaay la sant waaye nday jaa sant Diop moo tax ñoo Saliou Assa Diop moo tudd ko foofa kon dangay gis ni ah, moom ak sëñ Moussa ak ñu baax ñi nga xamante ni ñoo ngànk réew mi am na lu leen suñu borom boole. dana ràbbalante leen ràbbalante kon dafa mel ni mission bi ñu leen sant ñoom ñoo bokk ay taxawaay. Eh, mag ñoo ñii nag ñoo car lislaam ji ñoo ko téye yanu ko. Mm-hmm. ba lislaam ji agsi fii mu agsi. Mm-hmm. moo tax may wax ni fàttaliku leen yay na. Mm-hmm. ameel nañ leen boroom ñaan. ameel nañ borom di leen waxtaanee. suñu wétali ko suñu wetee di leen ñaanal. ak <laughs> ndax seen liggéey bu barkeel boobee moo tax lii am tey am su damay wax ni ñu doon buntu kër boo fi dem daal di bari ca buntu néeg bi mm-hmm. ñooy raj rajloo kenn ku ne naan may ma ma siyaare gisaguma sëñ bi ka ngay fekk ci biir yoonam nekku ci ña ko liggéey ci armée li tëdd dañ mat nañoo bàyyi xel bu baax baax kon da gis ni mm-hmm. ci biir ak bokk mm-hmm. am nañ ay taxawaay yu am solo yoo xamante ni suñ borom ma leen ko boole bu ko defee nag relation yoonu pas-pas bi door a ñëw moo tax toujours damay wax ni Sénégal bokk der gi moo fi jiitu l'islam ji ñun mhm. mhm. mhm. l'islam sax war noo mën a tàggale waaw ndax am na activité sociale yoo xam ne ñoo ko bokk te teewul bu ñu àggee ci wàll pas-pas kii mën a dem ca jàkka ja kii mën a dem ci église ba te teewul jàmm rek di xew ndax daam lu ñu lëkkale ci wàllu der ñu taxale ko ñu dellu bokkaat pas-pas mu mel ni kon takkuun gi daa gën a dëgër dañ ko doublé waat waaw ah, ñu doon bokkaat nag beneen tool boo xamante ni ñoo cay bay dégg la hmm. pas-pas googu hmm. incha allah ci la ñuy ñëw bu ñu hmm. dellu si waatee mbokk pas-pas googu ah tey de moom wax dëgg yàlla li mu indi si mbokku euh, maanaam pour wane ni kon euh, Sénégal ñun am na cër goo xamante ni moom la ñu suñu borom fal amoon naa ci dégg ci lu war kaa mën a mooy mbir daal doo ko jox sawaay waay da nga ko jox waayam. da nga ko jox waayam dëgg la de. <laughs> tey tey de sëñ Mamour li mu fi indi. c'est ku am gën taraani mbir daal moom bu ko jox sa waay jox ko waayam rek. képp képp waaw waaye rëccu ñu bi. mu ko te dina gën a leer incha allah bu ñu ñëwee. ndax xam naa ni bala ñuy ñëw mm. ci li mu wax ci bokk pas-pas googee. waaw euh, xam naa ni euh, euh, sëñ Cheikh dañoo bëggoon duggee ci. Mm. dégg nañ sànq si ay waxam. Mm-hmm. mu ne diggante sëñ Modou Moussa mi ñu fi taxateew ak maam Cheikh Ibrahima jiitu na sax gannaaw sëriñ bi loolu si mën a indi. waaw jërëjëf sëñ Aliou Badara. Mhm. ñoo ngi sant baax sëñ Ahmadou ci waxtaan bi wax euh, leeral gi. Mhm. man nag foofu damay jàpp ne li ñu ci mën a indi mooy. Mhm. maanaam suñu borom da leen a njëkk boole ndax suñu borom la wax ni. bi mu bindee ruu yëpp. da leen woo ndax du ndax du seen borom. ñëpp ni ko aha kay. xam kon booy xool ci biir kon foofu lañ bokkee woon. waaw. manam foofu foofu lañ bokké won hmm. légui muy wacc jaar ci yonent bi alayhi salatu wassalam hmm. yonent bi tànn mbooloom hmm. ñu andat ca waaw Cheikh Xadim bi mu tanat ñu andat ca waye nak day melni sax moo moo Cheikh Xadim ñu fon manam day melni dañu formé wat mbokk gu melni ga suñu borom bindul manam nga xamni tay suñu borom day melni ni ba muy bind mom képp loolu mo xamoon lépp diggante suñu maam Serigne Fall ak ku bax ki ñoom ñu format forn maanaam mbokk goo xam ne bii mm-hmm. day mel ni ñoom ba suñu borom di bindaloon ña nga fa taxawoon ndax lu bari bari maanaam boo ko maam Cheikh daan nettali mm-hmm. day wax ne maag sama waaje bañ ko doon def loolu booba doon lu yàgg kon day mel ni ah. mbokk maanaam mbokk ga dafa baati ne woon waaye ñoom <laughs> maanaam maanaam saa bu ñu jikkee di ko gën di ko gën di feddali kon mel ni bari na ay échange yu jaar mm-hmm. bi mu dikkee nag kon ba egsi ci diggante Cheikh Moustapha ak euh, euh, ak Cheikh Ibra mel ni léegi loolu lañ gën a feddali ca loolu la koy gën a firndeel mooy ndax suñu amado ni mu ko leerle ci mbokku deret gi mm-hmm. loolu moom ñëpp a ko gis mm-hmm. waaye pas-pas bi man damay jàpp ne tey bu ñu doon laaj mm-hmm. kan moo njëkk a roy wala kan moo njëkk a xeñtu doxoon Cheikh Ibra ci maanaam du ma ni ci donga yi mais ci murut gépp mooy Cheikh Moustapha moo ko njëkk a xeñtu ndax mom bam mu ni ñu ko waxe rek. bi señ bi euh wote yoon bi. ba samp dara yi. sëñ Modou musa mi ap tawam mo ñëk mo ñëk re a Cheikh Ibra di. waaw ndax mo ñëk di sol ay nawal waaw bàyyi bop muy sax waaw ci kam ko gisé ngir bëgg nu rob dong. waaw kon dafa melni boy xol kon mom pass pass bobu moko ñëk roy. waaw hmm. waye nak dafa ah, mu melni nak la ko señ bi wax. Hmm. ndax day melni Cheikh ibrahim moom yoon wi mi doxé mom rek man nako hmm. kon léegi da jar ko ko ci wettali léegi moo tax nag mu woo ko ni ko yow kat mhm. doxel ci yoon bii ginnaaw yoon yi moom am na ko koy doxe ci yoon foofu moom mbay maanaam mbay mbayif ga mhm. moom du booy du booy ci moom mii fi ne am na mbay moom ci da ko war a bay kon moo tax sëñ bi woo ko nag ni ko yow kat li nga naam baax na waaye nag dañu bëgg mhm. nga dañu laa fàggul lii kon moo njëkk a roy Cheikh Ibrahima manaam moo njëkk a wane ni kii sëñ bi moom da ko mënta roy sëñ bu mag bi mm-hmm. mais ki nga si moo gën a fës ci sëñ mag bi mm-hmm. moom moo ko njëkk a roy léegi kan kan ko ca topp nag mm-hmm. loolu caa topp oh. kon xam seen mbokk seen mbokk dafa yàgg oh. léegi mbokk googee ba mu amee diggante ak Ibra ak euh, Cheikh Moussa Cheikh Moustapha ñëpp xam ne bi sëñ bi nekk la bi fi sëñ bi nekk oh. bi mu fi jógee nag dafa mel ni sëñ bi junj saa waaw waaw relation jiitu na ji waaw jiitu na ñi euh, sëñ bi di làqu suñuy gët waaw xam nga loolu laa doon leen maanaam jiitu na loola waaye bi dafa mel nag bi fi sëñ bi jógee mel ni loolu man loola da ko da ko gën a fësal ndax la ko gën a fësal mooy ñëpp xam ne bi fi bi jógee ki njëkk a wone ki njëkk tànn ki njëkk a jox wane ni fii moo yoon wi Cheikh Moustapha mooy maam Cheikh moo njëkk a wane ni maanaam fii maanaam fii mooy yoon wi kon tey bu doon tànn la wala par par loolu dañ naan moom moo njëkk a woote Cheikh Moustapha loolu nag kon ba tey démb la woon mhm. waaye nag la muy nekk nekk nekk nekk nekk démb mhm. Cheikh Moussa Faye dafa am. est-ce que na xam li xew. waaw loo waaw loolu la waaw nag xam nga xam xam gi li xew moom. Mhm. yombul yàgg na. Mhm. ndax su ma nee yàgg na mooy. yëpp mhm. xam ne Cheikh Moustapha yónni na ay ndaw ci Cheikh Ibra yoo xam ne bi maa ndaw bañ àggee waxuma la Cheikh Moustapha waaye da ko commencé waxal ko fa ko sëñ bi teg démb waaye yëmu ca waaye ba ci sëñ Cheikh mii nga xam ne mooy taw seex Moustapha Cheikh Ibra junj na ko maanaam maanaam maanaam ci yónente booba juñ juñu na ko ci ndax da war ne ko sawaaji de boo demee nee ko maanaam fa ko sëñ bi teg maa dafa dem ba teg ko futim ñëpp nga xam ne léegi su lu mu puus mu dem lu mu ñoddi mu ñëw léegi Cheikh Ibrahima moo wax loolu ndaw la Cheikh Moustapha yónni ñu dégg jañ waaw ci nag waaye ko tuddal ko ñaar dalle ko waa ana soxna sañ soxna sa sant Diop soxna Fatma Diop ak soxna sa sant Lo dalle ko soxna sant Diop de bu ju maanaam ki mi njëkkam ka mi am ab xot bu lay doon xam moom juñu na suñu sàggay defal ci ci même yoon woo noonu mm. kon moom dafa xamoon démb ah. waaye dafa xam ne tey waaye dafa mel ni li ci kanam it da koo xamoon mm-hmm. kon xamoon la muy gën a firndeel rek mooy mm. sinam jaxasoo moom mm. maanaam dama mënut wax ni mënuma ginnaaw sëñ bi ni si ni ni ni sëñ bi ni maam sinam jaxasoo ak sëñ mag bi ginnaawam amul bu gën a dëgër bi mu jaxasoo sëñ Moustapha ah. ca loolu da koo maanaam da koo da koo firndeel maanaam da koo jëf da koo wax ca loolu yaakaar comme ni nga ko ni nii bu ñu ba ci kanam da ci gënal way nak bala ma ci bala ma ci eh, dañal fofu mhm. xam nga suñu ahmad dafa dafa joxe fi ay misal yo xamante bi bii nit ñi war nañ ci dégg mm-hmm. ndax dégg nga wax ni mm-hmm. man biram jabi momu mm-hmm. fam sancoon daam garab gu sànqaay sànqaay suñu ana biram jabi mini ma nga ci sànqaay ga léegi lu ñuy wax ma sa waaw. beneen jëndee nga ca ak Amadou Fall Seye Ngaye man kay gis nga xanaa Ngaye boobu Ngaye. nga wax dégg nga dégg nga ñaari bayit. xam nga dañ naan maam dafa waroon a jël ak ndamel. Hmm. waaye mais bu ñu xoolee. damel maa si ni moom mu nga xam ne moom mu mujj nekk moom mujj nekk damel. Hmm. diggante moom maam Cheikh Fall ëpp na ñaar téeméeri at. nga xam ne moom ci li mu wax nii ci alxuraan jëmat sëkk. Hmm. maanaam ci doomi soxna. ci ñaari anam yëpp. maanaam ci la feeñ dammel nga da ko doon dégg moom da ko doon dégg te it ñëpp xam ne bi mu ñëwee ci Seexul Xadim mm-hmm. ñëpp xam ne Arisaldi ibnu Abu al Xayrawaan yi mm-hmm. tey ñu bari Sénégal bu ñu ko jàngee mm-hmm. léegi fala seenum jàng fiq di yam maam sax bi mu ñëwee ci sëñ bi sëñ bi jàngaloo na ko ko nga xam ne moom maa fekkoon na jàng na ah, jàngoon na alxuraan ci nijaayam ba ba wàcc ba wàcc mi bi mu dikkee kon dañuy xam ni moom xam-xam ak alxuraan da ko mandi ba noppi door a ñëw kon xam nga kon ko maanaam suñu suñu ak dammel kon day mel ni maamam wala bàyyam moo nekk ak dammel maanaam moom moom moo nekkoon dammel fekk moom dammel da ko doon maanaam sori woon na ko da ko doon dégg kon yu mel noonu mën naa bàyyi xel nga xam ne fii ndax nit ñi li ñuy wax fi ne tey day bari loo xam ne bii déggin bi dañ jut xamul la ko sos duñ xam la ko sos waaw mi nga ko dinañ ñëw léegi sëñ Mamour ah sëñ Mamour tey Hmm. man de mun naa wax ni. Ah. maa ngi doog a dégg li ma dégg si taarix tey si suñu Ahmadou Ndiaye Guirane. waaw kon maam Cheikh Ibrahima Fall moom. tey ba pare ba pare indi na indi na yu bare bare ah. yoo xamante ni ay ah. leeral la. ci ni xamante ni xëy na ñenn ñi ñu ngi ko doon hmm. déggee wala ñu ngi ko doon waxee. Hmm. xam nga soo dafa am solo ndax wax tudd na ñaar. mag ñi fekkee dinañ si fàttalikoo mu gën a neex seen xol mu gën leen a jaaji ndaw yi fekkewul dina def si ñoom jom ñu jéem see royee góorgóorlu si bu baax a baax comme relation baa ngi noonu mm. di relation bu am solo mm. ndekete maam Cheikh Ibrahima Fall fu mu jógee ba ñëw Serigne Touba mm. nii la war mën a mel ba ñu koy noppee gis waaw xam nga sëñ ah, euh, sëñ Aline Badara li ma wax léegi rek ku am gën tëraan xam naa lu gàtt rek waaw euh, sëñ Ahmadou junj na ko sëñ Cheikh Fall tey ñëw tamit gën koo leeral ndax lu gàtt loolu bu noppee rek moom dina ñëw si pas-pas bi leen liyee ñoom ñaar loolu ci loolu laay leeral xam nga Cheikh mbokkum ñu baax ñëpp la wax na ko léegi euh, ñëpp la bokkal Cheikh Ibra sax loolu daana ko wax lu bëri ndax njariñ googu ngay gis noonu njare ñu bëri fa lañ soqi ko buñ toppee taarix Cheikh njabi mooy kër baayam wàq mooy kër ndey baayam njare mooy kër ndeyam te niñ ko waxee léegi ci diggante sëñ Daaru Assane ak maam Cheikh Ibrahima Fall xam bokk lépp leeral na ko leeral na itam diggante ma Cheikh Mourou Moussa eh, Cheikh Ibrahima ku set wicc la eh, dafa bëri nag bunt yoo xam ne dañ koo ubbi waaye dafa am lu sëñ kii wax léegi sëñ Cheikh Fall Taïf mu muy lu ma manqué rek su euh, ci mën a Cheikh bi muy ñëw fekkoon na mu xam ne mu war a xam lépp mhm. ndax taarix bi moom xam naa ne mënatuñ cee duggaat ndax li sëñ Ahmadou Ndiaye Nguirane wax moom kenn mënatut a wax leneen damay wax ne ñor rëccu la tax ñu tànnoon ko moo tax bi nga waxee léegi ne li ma dégg maa ngi ko door a dégg tey mu ne la mënutoo nag noonu lay demee nag waaw ndax it la ko xam nañ ko bu baax a baax xam nañ ne bu ñëwee dana wax loo xamante ne bi mu dees na ko mën a dégg te des na ko mën a te danañ ko mën a dugal ci suñu xol yi waaw ndax yoon wi nag dafa laaj tamit li may wax mbir doo ko jox sa waay da nga koy jox waayam waaw kay ñu war a wax nañ ñu war a wax nañ wax ndax ñu warut a wax ñu la jël waaw mm. <laughs> kay su ko defee eh, Cheikh Ibrahima dafa wax Baye Ibrahima Thiam na ko jàng naa alxuraan ba mokkal ko mm-hmm. tafsir naa téere xam-xam mm-hmm. waaye suñu borom moo ma ne waaw yoonu kenn nëwu ci de li may def def naa ko ci sa Ahmadou Bamba ba noppi mm-hmm. dama wëri ko Cheikh Ibrahima moo tax ma bàyyi lépp topp suñ Bamba xam nga booy waxtaane mag ñi ci kanam ku tedd ki ki xamul dara moom day defe ni mag ñi ay gone lañ fekk du gone sëñ Tuubaa la mbër du feeñ ci kanam moom de waaw sëñ Tuubaa mbër du feeñ waaye mag ñi nag duñ gone de loolu sëñ Ahmadu wax na ko léegi waaye nag sëñ bi mu mbër du feeñ ci kanam loolu nag mooy Cheikh Ibrahima daana wax sëñ Tuubaa tax may gone waaye mag laa woon xam nga loolu daana ko waaye mag laa woon de waaye bi moom noo mën a toll gone ngay doon fi moom waaw Cheikh Ibrahima daana wax loolu kon ma ngoog daana wax ne jamono ju sëñ bàmm ne it daana wax ne dee su fa wane xam sëñ Mortala Fall la ko wax ah. dégg naa da ngeen di bind yaa ak Masamba Ndiaye wàq ak Moussa Mortala san moom mun na ko waaw mun na ko eh, doom ah ba leen ko doom jamono sëñ bamba ne day su ko wane xam-xam ba sëñ bamba kat doom day defar di génn may defar di denc yooyu yëpp xam nga taalibe gi dafa muur lépp ba nga xam ne ñiy wax fi ne te xamuñu li xew te gësuwuñ démb buñ dañ koy teg ci foo xam ne dañuy defe kii ak ku réer la woon wala jeexil la woon wala yooyu déedéet fekk newul foofu ku set la ku sell la ku tegu ci aw yoon la ku xamoon ku indi xar kanamu démb la woon ndax relation bii ñuy wax diggante sëñ Mourou Moussa lépp démb la woon du tey moo tax mu bëggoon mhm. relation boobu waaw ndekete jiitu waaw xam nga junj na ko sax. Mhm, mhm. relation maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Modou Moussa. jiitu na bi sëñ bi demee. jiitu na balaa sëñ bi di dem. sëñ Modou sëñ sëñ Cheikh Fatma mhm. maam Baye Cheikh Modou Fatma nee na. Baye Cheikh Modou Fatma nee na. fekk na ñetti yoon yoo xam ni. sëñ mu Modou Moussa ñëw na ko ci Cheikh Ibra benn bi ndànd la. benn bi Thiès la. mu mujj bi njaaram la boobu sëñ Tuubaa dem na. kooku lañ si dégg te ñett yëpp danaa wax la mu wax ak Cheikh Ibra Fall. incha allah sëñ sëñ sëñ sëñ Ahmadou. jërëjëf léegi incha allah. mel na ni waxtaan wi am na solo. te way gi rek moy li ngeen ci wax moy mhm. jamono da tollu fo xamanteni ni nii mhm. ñun ñepp war nañu noo wat suñu bët mhm. te wat suñu loxasay te xool liñ am ñu am li ñu am kenn amuko ñun rek noko xool fa fal wax na ko marchandise la mu seer mo xam mom la ñepp doon wut ndax damay wax ni bu fekke da am lo xamni mom nga gëna bañ ci àdduna am lo xamni mom nga gëna bëgg ci àdduna ñu mm-hmm. tak say bët duggal la cim neeg ni la lambal lo daj moy sa sens mm-hmm. bo lambé laj la nga gëna bëgg dañ la dimbali la dimbali kay mm-hmm. lool lool lool mo bi ñu jamono lool lañ daj daj li gën xamni bu ne wuti doon tanal suñu bop mom lañuy tan tànn suñu tubaab nga gis ni pass passeport bi sëriñ bi woté té ci ay Ibra doon ko wër damay wax ni ci ay Ibra biram mat naa teey ndax fan la ne woon lu jiitu muy gisee ak sëñ bi mhm. moo lay xamal ni la ci lu wér la newoon mhm. kenn mënta war koo xamut damay xam new lu mu lu mu saf xam lu mu xeeñ xam xet ga ba pare doora mën a wër new mooy tax bu kenn bokkee new bu ma rombee ma xam ni kii bokk na new mhm. soo ko laalee boo ma rombee ba ma xam ni kii laal na ko te foofu ngay dellu dellu dellu siwaat xam ni lam ne woon mhm. la ko may loola mhm. loola dara la du du du biddante ko nekk ci lu ko neex mhm. loolu mayewut loolu ndax cërub yàlla la yor ndax li nga wax sànq ni suñ borom moo ma wax ni ma duy caaxaan loolu communication bu bu bu direct la suñ borom wax ni waaw niwut dama gént walla foog naa nangam ak nangam suñ borom moo ma wax ni ma te fuñ la wax itam dañ naa la tëdd guddi lis ci nga xam ni kon ci yoon wi sonante bi xàll ci lu ñuy jëfandikoo xam-xam foofu la jaar nga xamee kon wóor nañ la ay bagaasam ci jaamu yàlla la ko tegoon ci la ko tënk mhm. loolu itam waa bitti bi mbedd mi dañ koy war a xam toujours damay wax ni mbedd mi dañoo juum mhm. sëñ Tuubaa mi ñuy waxtaanee ci mbedd yi bokk tak mi ne ci téere yi <laughs> Cheikh Ibrahima mi dañ ko Cheikh Ibrahima mi itam dañ ko dañ ko waaw damay wax ni Cheikh Ibrahima dañ koo tooñ damay wax ni bo gisé photo bi bi gëna siw bi rek bi mu mm-hmm. taxaw mm-hmm. da nga gis ni nit ku nité ngi ni té ci photo bi rek image photo bi rek ngay xol xamni liñ koy waxal lepp doonu ci dara mm. mm-hmm. nga gis ni kon digënté bo bi nga xamanteni mi ngi wër sëñ bi kon amna fuñ xamanté won da mm. wax ni buñ bokkon aw tundu mm. nga ni yag na dégg turu su fekkonté ni da am mel mbokam mu ci ci ñëwoon da nga yegg ñëwaat ah mom ko dañ ko doon waxtaane ba mu xam ko Mm-hmm. moo tax muy jóg di ko wër mm-hmm. waaye ba muy jóg di départ ba dañ ko wax melokaan ya rek waxuñu ko woon sax <coughs> mm-hmm. melokaan ya rek lañ ko wax sëriñ bu mel nangam mel nangam mel nangam jóg di wër ndax wax na ni fanaan na ci armée li seen laykan ko sëñ Modou Muram waaw foofee daanaka fa la jóge turu Ahmadou Bamba mu door a xam ne ki muy seet Ahmadou Bamba la tudd waaye bu njëkk ci ay melokaan lay lay xool la tax sëñ Adama Gueye ak sëñ Maxtaar romb ko mu xam ni ñii ñoo ngi koy xeeñ xetu kam jóge loolu mat mat naa xool loolu du ay caaxaan loo loolu moo tax nga xamal ni la nit ñi leneen luñ nekk lu dul jaamu yàlla ay caaxaan ndax su borom mbiram du ko yàq ci ndab lu waaw jigéen ñi rek ku ci yàq balaa ndab lu taq koy sànni fële suñ demee ba mënatul a ñàkk nga xam ne gisatuñ lu ñàkk lañ koy raxas dox caa def dara waaye li fekk ñu ngi am ndab set moom duñ ko laal waaw yalla leen ëpp ful la fop ndax lim yor du ko def ci ndab lu ndab lu tax mhm. nga gis ni eh, dimension boobu yi nga xamanteni ni mom la ande ak serigne bi mhm. bim ñewé nga xamni gisé nak serigne bi woor nako ni ki la doon xol mu jox ko mbiram doxin wam fa dox mhm. loolu nit ñi dañ ko wara bayyi xel ndax loolu moy moy liñu soxla muy te damay wax ni jaam bu dangoo ak njaam ca nguur ga la bokk moo tax léeg bu ma déggee ñuy lim seex si jiital ci bi la dama naan ñi xamuñu ko <laughs> ñu ko ëmpale boolewul woon boppam ci seex ah. waxaat ko mag damay wax ne bu ñuy lim seex si jiital Cheikh Ibra dama naan ñii xamuñu Cheikh mm-hmm. Ibra ndax boolewul woon boppam ci seex si mm-hmm. ñooñu ñu daan tuddali seex ku kenn ku ci nekk gontal na la mbala mu xëyal la waaw kon kon daf doon wut yàlla ci ñoom mooy comme ci gis rek day wut yàlla ci yow maanaam da doon wut yàlla di ko wut ci lépp di ko wut ci ñëpp di ko wut ci fépp waaye loolu lépp nag buntam mooy kenn rek muy Sëñ waa mooy ab diggam nga xam ne day mel ni jigéen juy soq jigéen juy soq day dëbb ci digg ba fa la ko fepp yëpp di fekk ba soq waaye bu fee fekk bu fepp wu ne da nga koy fekk fa nekk nga tay ko hmm. sa dugub day yàq waaye du soq moom ak diggam moo doon sëñ sëñ bi rek la tegoon bët xoolatul woon na ne sëñ bi dong la doon gis waaye da nga gis melokaan wi nga ni la mel mu ñëwee ci ci bi muy melokaan wu wu doy waar mooy daa effacé boppam dëggutu doon dara dëggutu doon dara te yàlla dañ ni in lam takkun taraahu fa innahu yaraak beneen waaye beneen boroom xam-xam bu ko doon firi dañ in lam takkun hmm. sa rek gis in lam takun rek taro so jappé ni man amatuma rek yalla mo am yalla rek lay gis waaye dañuy gis ni ray li dox sun digënté ak sun bor mom moom yegg gi ñu sun bop ni non dara lan ba tax fu ñu doon ni koo ci joxoñ mu fëggub dana na la man ah, yoy bokku na ci kiiraay yu dox sun digg ak sun bor ba mën lu ko gis ah. mom da effacé won bopam mm-hmm. andi fa méthode bu bees bo xamanteni ni ñam fa fekk doxewuñ won noonu amon nañ orma seen digënté ak seen waaye indi na fa doxalin wu bees woo xamante ni ni ñoom ñëpp xam nañ ni wii moo gën wi ñu jàppoon. parce que may wax ni président de la république moo tax ñuy maaj. Mhm. waaye maaj moom président du ko jàngale. waaw soldat ba jiitu ca quartier ga moo koy jàngal moroom yi. moo tax chef la doon jàngale ak tali bi Sëñ Tuubaa mënu woon mag ñi ni leen nii ngeen may def. mënta sukk ci ndam ñu sukk mun leen jóg leen mënta toog ci basa ñu ñëw toog mun leen wàcc leen mënuñu ko jub mun leen raam leen bu ngeen may nuyu loolu du ko wax. montar ca morom ja lay jële heure waaye du jële heure ca borom ba boo tàndee sa montar rek def nit da nga avance baa nga retard da nga naan sawaay heure boo yor mun la heure sàngam moo tax faaw ñuy xool magi tali bi fi ñu tegoon seen tànk xam ne foofu mooy yoon mooy essentiel bi yoon yi boo ko jéggee rek yaa ngi ca ñag hmm. na ko ku ma jéggi weesu nga dégg bi wax siwul maa ngi maa koy moom mooy mooy mooy liberté nga xam ne da nga ci jàngee hmm. ci ci melokaanam woowu hmm. jikko yi nga xamante ni ku melokaanoo doonub sang mhm. muy woyof bi mhm. ndax bëgguta doon dara mhm. ñëpp jëppante ni moo leen di liggéeyal te loolu la yonent bi waxoon ni sayyidul xawmi xaadimuhum ba muy kër kër yi fi mu doon nii di root di fanaane root di soq di wal nit ñëpp nañ jigéen ñi nañ bàyyi lépp mu yanu lépp xamoon nañ fii lay mujj ndax yonent bi waxam dafa naan sayyidul xawmi xaadimuhum sangub nit ñi mooy ki leen di liggéeyal mu ñëw féetewoo lépp moo tax tey mu nekk ci kaw ndax mag ñi dañu lépp loo bëgg a sañ hmm. danga cay way <laughs> loo bëgg sañ rek da cay hmm. way hmm. même gis nga soow fi mu doon ni boo xasee way boo ca sottee ndax it sañ ak kenn mënu ku leen féetee féete kaw ca kaw lay féey ah. mënoo fexe ba mu diig dafa way ceeb la looloo ko may li mu am ci sëñ Tuubaa waaye lu ne dégg na ko na waaw lu ne lu dul Cheikh Ibrahima Fall wasin na biig dégg na ko ci yoon waaye amu ci soxla ndax xam na li muy wut moo tax da ci gis wayef ko da nga ci gis itam ak nangoo muñ lu ne jànkonteel na ko ci yoon waaye taxul mu dellu gannaaw taxul mu dégg-dégg da nga ci gis tam ak yaatu muy wóor na ko ni li sëñ tubaa ëmb te bëtam bi tegee ci am na ci ñoo xam ne xamuñu ko te bëgg nañu gis ko bu ci siisoon da ko wan kenn da koy jàpp rek jàpp bopp waaye yaatu gi da nga ci gis ni tam ngor la waaw ndax li sëñ bi yor soxlawu ci dara te lu mu am indi waaw oh. <laughs> lu mu am rek indi laneen lu muy wut itam hmm. dak ci bëgg sëñ bi tax mo di ko dajal ndax jàpp ne ko soxla mhm. lu wut rek lool la ci jublu moy lu muy waye waaye fàggulul ngir alali aduna wala dara mhm. même gisé gisee ku terre yi nga xamanteni da tay ci wuti ay kër ak yooyu mhm. lam doon sooralé rek moy bëggul fenn sëñ bi wacc fa di rang te xamna ni sëñ baa ci biti te woor nako ko ni gaay buñ koy indi ci saxar lañ koy jaarale wala ci ci bato lañ koy jëlal motam daan tefes daan tefes yi ak gaari di wuti kër ah, ah. loolu mo lay xamanteni ne du du nit ku nelaw nit ku yow la koo xam ne mi ngi xalaat en l'avenir li hmm. am hmm. ci gis ni itam ni ku lawet la hmm. ndax bari na fi mu toll nii lu ñuy wax ci bitti waaye doo ci dégg kenn ku la nettali ne la sa maam la Cheikh Ibrahima sa dóor waaw kon kon du du jikko yu wér waaw ah, ñu naan diw nangam nangam Cheikh Ibrahima dóor déedéet déedéet doo ko dégg ci histoire te nit ñi moomee wuñ seenu làmmiñ noonu bu doon loolu da nga dégg ñu ni diw ci dëkk sàngam ba ko Cheikh Ibra oh, dóore wala diw ba mu ko de ba mu ko saagaaw tudd ko nangam ak nangam mm, mm, mm. doo ko dégg xay mukk doo ko dégg xëy na daanañ wax ni daan am baat bu mu daan faral di tudd léeg-léeg muy ngëj waaw te lam ci jublu de waxoon nañu yi mun jël karimun jaliilun la ci tudd tudd yàlla karimun jaliilun mu jël kaaf ga ak jiin nga tudde ko ngëj xam da koy tënk <laughs> xam ni mag ñi dañ leen a jege mais ñu leen Mm-hmm. xamuñu leen mm-hmm. su damay wax ni mag ñi boo leen doon xool dañuy mel ni daanaka affiche bu cinéma maam la muy affiche ci bit ak film bay daw ci biir bokkul du bokk waaw déedéet mm-hmm. leen di jege rek xam lu ñuy dund da nga ci gis ni tamit ku dégg ndigal la waaw dégg ndigal gi moom mooy sëñ bi rek lay déglu benn nopp la am sëñ bi la ko dëgg ma yenn bët la sëñ bi dong lay xool gisul leneen mennum xel mennum xel rek tànk yi sëñ bi dong la jëm amaatul faneen fu mu jëm loolu nag da ngay gis ni loolu la jamono soxla ndaw ñi fi mu doon nii loolu lañ soxla boo gisee ndaw ñi riir bi riir fi mu doon nii hmm. mooy bëgg nañ sëriñ waaye hmm. xamuñu ko rombuñu hmm. ko te mbir nag boo ko xamul ba pare daw jëm ca nga loru ca mooy gën a yomb nga jariñu ci damay wax ne weñ dee na ci soo waaye xaru bëgg soo ko rey ñàkk xam na muy jariñoo ci soow ma moo tax mu lab ci waaye bëggoon na ci am su doxi soxla moo tax nit ñi dañoo war a xam sëñ moo tax boo delluwaatee ci musaaka daanaa la waa daanaa la sëñ di maanaam dex ku sooboona mes bu génnee xam boromam waaye ku soo bugg dex nag na xamum ndox mm-hmm. ndox bi yeewul mm-hmm. ndox weex na mm-hmm. lewet na waaye weex na xat ci biiram mooy booy nit ñi nag dañuy jaawatle roy ak toppandoo roy ak toppandoo bokkul li leen mooy toppandoo dama naan kii daal ëpp ma sutuma lu man war naa ko mën loolu de danger la la bu ma gisoon koy fee fi mu doon nii ma ne kii ëpp ma ëpp sutuma lu war naa ko man bu may dugg di nóor mooy diig Mm-hmm. bu dee roy nag damay xool li ngay def xam fi nga ko teg nga mm-hmm. teg fa ah, waaye nii la bàyyi diw di doxee moom mënees ca doxub tool balaa yàgg nga dellu ci na nga meloon mm-hmm. mooy gaa yi ne ci mbedd mi di kay ak ngi di tudd seex bi da jëmuñu fenn waaw <laughs> duñ fa sax mbarit kay parce que xamuñu fu mu jëm waaw ci ci ak col yooyu lañ ko bëgg ci waaye déedéet te du yooyu nag du yooyu ci ay ba pas-pas la mm, mm. pas-pas la man na maa yor garam boobu gani la yor 4-4 dëkk ci étage ba pare di dund ci ay mm. waaw te te loolu mooy foo foofu la newoon boo ko gisee ak colom gi ak titre foncier yi mu am ak capital régionaux yi mu dëkkee mm-hmm. ak euh, garmi yi nga xamante ni ñoom la newoon ci wanagam di leen liggéeyloo nga xam ni kii da xam ne ndox gi moom gars yi ñu ko proposé waaye Cheikh nit la woon gars yi ko wax daf ni ko remarquablement intelligent maanaam ku maanaam ak ñawam ak tubaab nu mu mënee seetlu maanaam mu fës lool ak ak daal ak ñawam ak nitam dafa fësoon dafa fësoon lool sax nit la woon loolu loolu mooy mooy moo am solo loolu yi la jamono war a jàng sëñ sëñ sëñ Ahmadou ñu ngi ñëwaat ci yow léegi sëñ damaa bëggoon sëñ Ndiaga ñu ànd ak sëñ Amadou tey daan nuyoo si rek eh, kéemaan la daan nuyoo si tey rek waaye nag yàlla dimbali na ñëwaat waaye day ñëwaat kay ah, kéemaan dëgg la léegi xam naa ni sëñ Ndiaga <laughs> Seck Saliou la ñuy àndal waaw eh, ndax eh, melo yi mu wax si maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. moom la njabootam gi du dund waaw di ziar bu baax sëriñ Cheikh Jëmb faal di ko ñaanam yàgg loolu tànd ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ndax te xam ngeen ni mm-hmm. ni koy defee at bu jot. Mm-hmm. bu màggalu Tuuba di di di di di di di di di ñëw. Mm-hmm. maanaam benn fanu safar. Mm-hmm. ni ma maasewoo di buub dëkk bi. ba keroog ndigal lii nga xamante ni moo tabbi di ndigalu Serigne Mountakha Bachir. ci euh, juróomi euh, wote yooyu nga xamante ni waa Touba ca kanam di ziar bu baax Serigne Habibou ak mboolem waa Touba ca kanam joxe nañ ko. sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mountakha jëlaat oto yooyu joxaat ko Serigne Cheikh Fall jëmb ni ko dëkk bi maanaam cet gi yaa ma ci doy. loolu nag moom sëriñ bi dafa joxe woon ndigal woto yooyu nañ ko tàmbalee ci mm. wàccaayu màggalub Daaru doos mm. ba tàmbali nañ liggéey boobu dañ si ànd ak euh, sëriñ Moustapha Fall moom sëriñ moo Aminta euh, di ziar bu baax a baax sëriñ Fallu mu sëriñ Modou seen taxawaay ci sëriñ bi liggéey boobu mu leen dénkoon mm-hmm. ñu def ko anam bu am solo ca Daaru doos mm-hmm. euh, déglu kàddu yooyu doo ko dellu si waat si la si waxtaan wi. ci turu. neewaa ci turu. Cheikh Amadou Mbacke mi nga xam ne. Cheikh Amadou Mbacke mi nga xam ne. moom la fi Cheikh Amadou Makhtar yebal. moom la fi Cheikh Amadou Makhtar yebal. Mm, baaxoo loolu. nee yoon baaxoo loolu. moom fuñ liggéeyoon ba noppi. moom fuñ liggéey ba noppi. dellu fa mu jóge woon. dellu fa mu jóge woon. di di di déglu baatu ndigal itam. di di déglu baatu ndigal itam. ñun loolu doy nañu. ñun lool doy doy nañu. waaye ñu liggéey ba noppi nag. waaye ñu liggéey ba noppi nag. dajaloo dajaloo. kenn ci ñooñu kenn ci ñooñu sëñ Tuubaa kenn nag ci ñooñu sëñ Tuubaa ñi. ñëw yewinu ñëw yewinu loolu moo ñu lu ñu am. nee loolu day moo daqal dàqal lu ñu mën kon ñëw gi mu ñëw. te ñëw gi mu ñëw. kon ñëw gi mu ñëw. kon ñëw gi mu ñëw. te jëwriñ ni Cheikh Modou Moussa yebal ko. te jëwriñ Cheikh Modou Moussa yebal ko. ngir xolam bu sedd guy. ndax xolom bu sedd guy. ñëwaale na yoonu murid yëpp. ñëwaale na nag yoonu murid yëpp nag. kaddu gu mu wax rek. ne kaddu gu mu wax rek. bu néewee bu bare bu ñëwee bu néewee bu baree. doy na doy na noonu. jërëjëf doo leen doon wut. nee jërëjëf rek leen doon wut. ci sëriñ bi ci sëriñ bi. am nañ ko nañ ko nag. ban ko defee léegi bëggam ban ko defee léegi bëggam. dajaloo gi ñu dajaloo. dajaloo gi ñu dajaloo. ñu dund ñaanal. ñu dund ñaanal. danoo fekk muy cërub lislaam. fekk muy cërub lislaam. bu muy jëfee bu muy jëfee. waaye li fi nekk. waaye li fi nekk. du lu ñuy maye. du lu ñuy jaay rek la. lu jaay rek la. njëgam nag mooy. njëgam nag mooy. defal borom li mu bëgg. defal borom li bëgg. defal nañ ko li mu ko li mu suñu borom moo ni defal nag leen bëgg. incha rabbi te incha rabbi. kon nag ci moom itam. kon ci turam moom itam nag. nag ci turu nag. waaye turu nag. sëriñ xam ne. sëriñ la joxe. kàddoom la joxe. ndax ñoom kilifa yëpp dajale seen kàddu. ndax ñoom kilifa yëpp ñoo dajale seen kàddu. di seen di seen taalibe. di seen taalibe. jox ko seen doom ko seen doom ji doon seen taalibe. mu tegaat ko loxo noonu. mu tegaat ko nag suñu loxo noonu. kon nag ci wax ju gàtt. kon ci wax ju gàtt. lépp te ëmb lépp. ku defal sëñ bi li mu bëgg. ku defal sëñ bi li mu bëgg. li nga bëgg suñu borom def li ko. defal ngeen sëñ bi li ngeen bëgg li mu bëggoon. defal ngeen sëñ bi nag li mu ngeen bëgg suñu borom koy defal. li ngeen bëgg suñu borom moo koy defal. incha rabbi ni ngeen ko bëggee incha rabbi ko bëggee. ni ngeen ko bëggee. jaayante gii. jaayante gii. di di di mbalem tuwaa mi. di mbalem tuwaa mi. mbalem mbalem mbalem tuwaa mi. li mbale mu njëkk mi rek la. ne mu njëkk mi rek la. mi mu njëkk mi rek la. waaye noo ngi dellu si waat. waaye noo ngi dellu si waat nag. te miin tàmbali tey nag. te miin tàmbali tey nag. moom li feeg yoonu murit nga am. feeg yoonu murit nga am. danoo bëgg mu sax danoo bëgg mu sax. muy liggéey bi ñu teg ci loxol jëwriñ Cheikh muy liggéey bi ñu teg ci jëwriñ Cheikh Rafal ji. te Cheikh Modou Moussa teg ko ci te Cheikh Modou Moussa teg ko ci loxoom. Mountakha sëñ Mountakha. sëñ Mountakha teg ko ci loxoom. muy muy muy daaba yi ñu joxe ñoom waa Touba ca kanam. muy daaba yi ñu joxe muy Touba ca kanam. waxuñu ajumay tey jii rek. waxuñu ajumay tey jii rek. des ko topp ajuma yëpp. des ko topp ajuma yëpp. ju dikk ajuma ju ñëw. ñii ñu tàmbalee kër Cheikh Modou Moussa. ñii ñu tàmbalee kër Cheikh Modou Moussa. suñu Cheikh Modou Moussa di jël day njëlbeenu lépp. te Cheikh Modou Moussa di njëlbeenu lépp. bu bu jeneen dikkee. bu jeneen dikkee. xam ngeen ni mu toppalantee. xam ngeen ni mu toppalantee. kër goo lañ ci teg. kër goo lañ ci kër googee lañ ci teg. kër googee lañ ci teg. ba taayu sëñ Tuubaa yëpp daj. ba taa ba taayu sëñ yëpp daj. loolu neex na murid yëpp. nee loolu kat neex na murid yëpp. sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal. sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal. Cheikh Modou Moussa moo ne ci bopp lépp seen sëñ Modou Moussa nag moo nekk si bopp lépp. kon koo jiital. kon koo jiital. daa am cër boo xam ne ku séddale. daa am boo xam ne ku séddale. boo ko joxee boo ko joxee. dajal nga ñëpp dajal nga ñëpp nag. ku jox ku jox Cheikh Modou Moussa rek. ku jox Cheikh Modou Moussa rek. dajal nga yoonu murid. kon mel na ne yoonu murid daj kon mel na ne yoonu murid daj na. kon nag liggéey bi. kon liggéey bi. na ko sëñ bi waxee woon rek. na ko sëñ bi woon rek. kër yëpp. kër yëpp. seeni jëwriñ seeni jëwriñ tànn nañ leen tànn nañ leen wax ak ñoom kàddu goo xam ne wax ak ñoom kàddu goo xam ne ku ne tàbbi na sa xol ku ne ku ne tàbbi na sa xol ak sam xel lu waxoon ne lu waxoon ne danoo bëgg danoo bëgg ku sa yaakaar ne Cheikh Rafal ku ne nga jaayante nag weer wu nekk nga joxe téeméeri dërëm nga loolu mu ko murit bu ko deful am waaye ñu ko suñu borom mën kat mën loowut kat bëriwut ku mu neexoon nag da nga naan loolu moom ñëpp ko mën. weer wu nag. weer wu nekk nag. nga jaayante. nga jaayante. def loolu yi def loolu yi. jàppale ko liggéey bi ñu liggéey ci Touba. jàppale ko liggéey bii ñuy liggéey ci Touba. murit bu nekk war na ko jéem. nee benn murit bu nekk war na ko jéem nag. nee lii kat bokkoon na ci kaddu yi nga xam ne. bokkoon na ci tax sëñ bi bëggoon ñëpp daje. bokkoon na ci tax sëñ bi bëggoon ñëpp daje. ñu wax ko ñu wax ko. bala noo yeewu ko. kon Cheikh Amadou Mbacke itam. kon Cheikh Amadou Mbacke itam. sëñ baa ngi

di ko ci teg di ko ci teg. di jëriñ Sëñ Tuubaa. di jëriñ Sëñ Tuubaa. ñoo ngi ñaan li mu teg ci loxoom. ñoo ngi ñaan li ngeen teg ci loxoom. ak ñi mu àndal ci rakam yu tëdd yi. ak ñi àndal ci rakam yu yi. ak doom yeeg nun taalibe bi ak doom yeeg nun taalibe yi. lu ci xet bëggam rek. lu ci dig bëggam rek. nan dimbali ba mu mane ko nu koy njortam. nan dimbali ba mu kawe ko nu mane njortam. te te te sax ci di ko def faaw. te sax nag ci di ko def faaw. waaw Fall jërëjëf Fall jërëjëf. sëñ nee na ci lamuñu si Ahma xolam sedd na xolam sedd na guy yii xolu mboolem njaboo tamit sedd na guy xolam mboolem taalibe yi fi nekk sedd na guy ak mboolem képp bépp jullitit xolam sedd na guy ndax lii de nee na lu lu lu kawe la ci moom ndax li tax mu kawe moo di magam ju baax jii nga xam ni moo di sëñ Mouhamadou Mountakha ah te yab te jox ndigal waa kër Cheikh Ibra Fall gii ñu ñëw lii ñuy def ñu yëkkee ko fii ci Daaru Xuddoos nee na loolu mun mënta am mukk mukk lu ko gën a kawe mu ngi leen di seeral ni xolam sedd na mi ngi leen di seeral ni seenum liggéey sëñ Mourou saa nangu na ko Cheikh Ibra nangu na ko ndax fii kat fii kat fi la boroom doon diyaaleeg boroomam dàkkay Daaru Xuddoos lépp fii la xewe kon ndok bi ko bi leen yàlla xiire ci sëñ Mourou Mountakha mu yabal leen fii lii ngeen di def te muy njariñul adduna bépp ngeen jëkkee ko fii ci dara Xudoos kër gii fi la sëñ bi nekkoon fii yëpp fi nu jaar fépp ay tànkam dëgg na ko fi kon bu ngeen mbir mi bu ngeen koy jëkkee fii xolam sedd na ci lool xolub ay taalubeem xolub ay rakkam ak i doomam yii yëpp sedd nañ ci wax ni nit kenn ku ne war nay xool ci boppam di xool ci seex yëbra lu mën a roye ci moom teyit buñ xoolee ci yéen ñii ni ngeen di doxe wax dëgg yàlla képp bépp taalibe bu ci roy waxuma de ab Baay Faal bépp taalibe bu ci roy dana dem man man naa man maa waat si waat ni ku kuree xool ci yéen roy leen dana dem tey dem dong lan bëgg na dem nag dara gën cee woor ni ngeen def loo mën a def te nekkoo Baay Faal day mel ni defoo dara ndax du dëgg ci yow kon nag nan leen ñun de ñoo ngi leen di roy ñun de ñoo ngi bég ci yéen lool noo ngi sant di ñaan suñ seex jëmb mu yàgg fi di ñaan jëwrëm yii sëñ Fallou Fall mii ak mboolem ñi mu àndal taawam yii yëpp يالنا في يا يالنا ياغ ليغيل يا توبا ولا فنينا واتي بيالا مو گن بو ني دي ديف ديفو كين ديفول يالا اي بوروم كون فام استوا جيري جيف سيرين نجا سيك صالح جيري جيف سيرين جيل نجا عبد الخالد سي والو خارلا يي واي جاجيفول با الحاج فالو سيل سونو تاخوايم بو رافيت بي سي دك بو سيل بو دي توبا تاخوال نيو اليمان يو ام سولو ييب اند سيك سيرين شيخ سامب ñu ngi di ziar bu baax a baax Fallou Sil amuñu sa fay ñu ngi lay ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla ci taxawaay bi mm-hmm. sëñ Cheikh Fall tey lii nga xamante ni moom la ñu gis ba léegi di dugg rek si mm-hmm. li dox si diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. gis nga ni mu demee mbale mu am solo mi ni ñu ko defee nu mucc ayib ak teggin niñ si booleek lépp rek maanaam euh, loo siy saf waaw jërëjëf sëñ Aliou Badara maanaam fi ne liggéey bi boo koy xool rek maanaam day delluwaat ci gu dembu ga mhm. ndax xam nga Cheikh Moussa la bis bimu muy deugmal du mhm. dar wote mbale mi mhm. su ko wote mom moy njëkk jël ak bale di balé suñ ko nekk tegal mu ñu déedéet maanaam liñ bëgg la bëgg ndax tuba gi képp ku fi setal luy tolok genn wala wala mètre ñu jéggal la waye mbale mi kan mako ñëk ci yoonu murit maam Cheikh Ibra ah. di kon ja di buuba kon ba lol day ci ni maanaam Cheikh Moustapha mana hmm. nga liprek ne lépp rek hmm. doonte muy kilifa Cheikh Ibra ci wet hmm. waaye roy ga ba léegi moom jëfam yëpp da cee jëfam yëpp da cee feeñ da cee da cee mi am gi am solo euh, da caa bok ci loo bi ne bii ndax wax nañu Cheikh Abdoulaye dafa am jënn jëmm joo xam ne dafa defoon bakar bo xam bi bii jërut wae waaye day bo bu doy war wax nañu mu dikk wax ko sëñ Abdoulaye ni ko man de def nangam ak nangam wax nañ sëñ bi ko faa téye di ko bale loo mm-hmm. am at mm-hmm. yiwi ko mm-hmm. léegi nag ña ko ña jigee wax nañu da caa dégg ni ba loolu amee ne léegi bàkkaar ba li muy rëy rëy rëy léegi suñu borom jégal na kon bale wala buub kenn dafa xamul la ci nekk kon loolu moom taxawaay bi ci Baay Faal yi taxaw nag ni ko kilifa kilifa gi di jottalee am solo am solo goog wax dëgg ni mu mel moom dafa kawe njort waaye loolu li ma doon wax rek ba tey day dellu ci maam Cheikh. Mm. ndax xam ne sëñ Amadou wax na ko sànq ci diggante sëñ bi ak maam Cheikh xam nga maanaa dama naan sëñ mag bi ñun def suñ boroom. Mm-hmm. ba am ci lu kenn amut. Mm. maam Cheikh noonu def suñ mag bi ba am ci lu kenn amut. sëñ bi def sëñ bi bi ndiggee dane ndax xam nga fekk na fi ay wàliw mm. ñii di dem ci kaw ak nangam leer gi di leen gand ba ñuy saalit sëñ bi dafa wax ne moom diggante abdu ak rabbu abdu lay toog suuf jaamu rabb mm-hmm. bu ko bu ko defee bu borom dee wàcc di ko jox mm-hmm. li mu ko jox ndax dafa taxaw waaye boo yéegee ci kaw da jag la lay jox mm-hmm. dalay lay gànd maanaam moom loolu la def nag ba xam ne rabb moom daa jóge ci kaw rek moom jox ko xam nga fi ni ku toog suuf amul lu ñu lay yan bañ naan da koo ëpp doole ba muy noor mais kaw gi nag boo ko boo ci yéegee loola fel daa yomb kon moo tax yeneen gaa yi li tax ñu doon dem jëm jëm suñu borom ba mu leen jox ay leer ñu mu leen di gand mm. ba ñuy wax di sëlin di wax leneen sëñ bi nag moom da ca maanaam loolu da ko caa fekkut uh-huh. dafa toog suuf rek bërëb bu fekk ko fi lu mu ko yen nag àttan na ko mm. nag nag la mel moom it dafa xam ni mm-hmm. diggante mm-hmm. ab kilifa sëriñ ak ak taalibe mm-hmm. la ca war rek mooy taalibe bàyyi léppam ndax su sëñ bi wax maam Cheikh daa bàyyi boppam bàyyi yàlla mi ko bind bàyyi bokkam moo tax nag ma def ko mhm. lu ma defalul kenn léegi nag ni sëñ bi li sëñ bi am suñ suñu mhm. nga xam ne ñëpp xam ne kenn amu ko mhm. maam Cheikh diggante diggante mag sëñ bi relation bi la ci doxal daa bàyyi boppam bàyyi léppam maa xam ne daal sa kilifa da nga jox sa lépp comme ni ko sëñ Amadou waxee benn bët la moom lay xool benn nopp la benn nopp la moom moom lay déglu moo tax nag sëñ bi jox ko mu joxul kenn léegi relation boobu nag nga xam ne Cheikh Moustapha wax naa ni donte ne bii sëñ bi jógee mooy kilifa ak maam Cheikh Ibra waaye ba mu ko tàmbalee roy dafa yàgg léegi loolu nag moo ñëw ba ci liggéey bi ndax dama xam ndax jàpp naa ni sëñ Moustapha wax na ko léegi li mu wax ni kuy war tàmbali ci Cheikh Moustapha léegi man ngaa toog dajal nga fépp waaw ah, xam nga la dajal nga fépp léegi loolu lu ko war a waraloon mm-hmm. Cheikh Moustapha ba muy roy ak tali bi maanaam waxuñ ci wax waaye jëf waaye Cheikh bi la roy Cheikh bi la Cheikh la roy mm-hmm. léegi nag loolu nag mooy rogalaat ndax yaakaar naa tey lii am ren jii mm-hmm. du hasard wax dëgg fa yàlla du hasard du hasard kon loolu nag day loolu la muy la muy wane mooy mbalim yi ab tegtal la ci démb ci ku xamoon histoire démb wala nga fekke woon démb léegi nag soo ñëwee ci tey ni si si ñax ma waxee nga mën cee jariñu nag nga mën cee jariñu ci liggéeyal waaju baax ci bale ak ci leneen ak nga mën cee jariñu baax a baax ca bis bii nga xam ne moom la ñuy waajit nga xam ni xam naa danañ ci ñëw waaye lépp lu ci waaye def hmm. ku ko ku ko xamoon hmm. day mel ni kon bu dégg bëccëg ni Baay Faal yi def hmm. loolu ngay def doo mën a doo teg doo teg sa laxasaay ndax ginnaaw moom ni ngeen ko waxee suñu borom maanaam moom moom moom moo ko waxoon hmm. moo wax ne yaare bi ijal xayra ayaam yi yow ma alxaak suñu borom bis bi gën samay bis maa ngi la ko ñaan nga def maa la ko ñaan nga defal ko muy bis bi kon kooku dañuy jàpp ne ku fàggu ci bis booba laa ci fàggu lu mu rëy rëy rëy rëy day mel ni tuuti na ndax bu ñu la ko fayee da nga jàpp ne lii man su may gën ko yokk loolu suñu tubaab rek ko saña wax defal sama ngën ngi bis bis bu may dajeeg yow bis bu may dajeeg yow loolu waaye waaye kii sëñ Cheikh Fall mii daal wax na loo xam ne dëgg la maa ngi siy ñëw dañuy ziar bu baax a baax mm-hmm. sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké mm-hmm. Mm-hmm. di ko ñaanal suñu borom yàggal ko loolu te man dëgg suñu maam mu ngoog mu ngoog wax dëgg yàlla waaw sëñ Cheikh Fall daal xam naa xam nga Cheikh Ibrahima seex Moussa sama borom da na boole woon boole goo xam ne maanaam sëñ Cheikh Ibra dafa dégg sëñ mu Moussa. Mhm. am na ci yoon woo xam ne sëñ Mourou Moussa daa ñëw ci Cheikh Ibra ba mu ko gisee. Mhm. Cheikh Ibra tudd yàlla am na sax ñu fa toog defe ne xel mi daa dem ci ku tedd ki waaye keroog dafa daal di yónni kenn ci mag ñi tur wala fàtte fii de waaye mhm. bu subaa dinaa la ko wax. allah. na ko demal ci Ibrahima Kan Baye Ibrahima Kan mooy bàyyi Baye Cheikh Kan mii lu fa nekkoon ma ko lu fa nekkoon ci alal moo doon moo doon dencal Cheikh Ibra lu bari mhm. na la ko jox ba mu demee mu indi addi ju bari sëñ sëñ Cheikh Ibra jox ko sëñ Mourou Moussa na ko tudd ma yàlla fi ngir tiit sa kanam dama ko doon noyee waaw sëñ Mourou Ablaye moo ko nettali nee na góor ko wax kooko ca magi Cheikh Ibra maam Cheikh Ibrahima Fall nekk na Thiès mhm. Baye Cheikh Moudou Fane ma nee na Cheikh Ibra xëy suba génn Kamu ne képp ko annoncé nako ci si ngunu ngi fi war a dafa wax mag ni ne wut leen kay yu baax ngeen dem ba ca gar ba tertu ma serigne Mourou sa mbak mi ci saxaar bi ñew ñu wut ay fascinaru goor rafet defar ko Cheikh ibrahim génn na dom lu ngeen nar ñu ne ko yaa wax ni serigne Mourou Moussa ngi ñëw mu ne ngeen wut seen naru goor yu suñu rafet yi ngeen tek ci domi serigne mu bañantu waxuma lolu ana uhuh. mujjom na ngi na ana daw da ngom na ngi ana sama carotte carotte ñu wat carotte sa indi mën nañ ko takk ñaar ñi ñu jël carotte sa takk ko bàyyi mu jóg ngeen ak bàyyi daaw dogom seera fal na dox leen ba nee ma gis ñu dox del si ma waaw leen góor doom bu ngeen demee na ci sëñ Mourou Samba Mbacke warte ngeen fekk sama fii looy ñaari nit bàyyi mu jóom ngeen ak bàyyi daw dogom ngir fonkeel gi rek waaw ñu dem bañ ñëwee ñu takk carotte sa indi sëñ Mourou Moussa Cheikh Ibrahima yendoo moom ba ngoon jot nga xam ne keroog fale yendu ba ngoon jot am na ci yoon woo xam ne ci njaareem la sëñ Mourou Moussa yoor yoor la ñëw sëñ ba Basirou julli na fa tàkkusaan sëñ Fallou fanaan na fa yaari guddi loolu Cheikh Modou Fall maa ñu ko nettali fekk na loolu la kon dafay mel ne ñoom boole gi dafa yàgg te Cheikh Ibrahima moom naka jekk moom moom dafa yàgg joxoñ sëñ Modou Moussa te te wax na ko ba tey wax ko mag ñi am na ci yoon yoo xam bay daw da ngay baax daas ñoom fekk nañ ko ba ci ngasum raay bi waaw nga xam ne bi mu demee pas-pas boobu la bàyyi sëñ Mourou Moustapha Fall mu mu ànd ak seex Mourou mu Mbacké ci at yi nga xam sëñ Cheikh Ibrahima ngi def trente ngi dem trente sëñ Mourou Moustapha Fall ko trent trente ba cinquante daanaka trente ba quarante cinq bi sëñ Mourou Moustapha jógee lépp ñoom ñaar ñoo ko ànd xoola bi gouverneur Wiltor wootee ca Ndar Baye Ibrahima Mbodj nee na sëñ Mourou Moustapha Mbacké ànd ak sëñ Mourou Moustapha Fall keroog bi ñu egsee gouverneur joxe loxo ànd ak jabaram ku mu jox loxo jabaram jox loxo ci kilifa yi bi mu mm. jegee Cheikh Mourou Moustapha mm-hmm. sëñ Modou mu Fall moom luy problème am mooy xam na ne gouverneur bu joxee loxo Cheikh Moustapha Mbacké ndaw si dina jéem a joxe loxoom te sëñ Modou Moustapha du ko nuyu léegi waaw moom te wax kay ba ngoog nee na bi mu waxee loola dee na sëñ Modou Moustapha daal di sëñ Modou Moustapha Fall ñëw sant ko waaw moo tax bu buñ ko masaan wax baabul moom Cheikh mu Fall mu art ko na ko boo ko waxati baa bu moom sant bu melni man lay am ke kee toog doomi sëñ bamb mooy baabu da da da daa di daa di be seigne ba sëñ mus Mourou Moussa Fall taxaw ci seigne Mourou Moussa Mbacke bu gouverneur na jey loxom seigne Moussa Mbacke ba seigne Mourou Moussa ni gouverneur ndaw si na jëy loxom seigne Mourou Moussa Fall ko nuyu na ko kii di nuyu ko waye nak Cheikh ibrahim len waxon na len <laughs> Mourou Moussa mu ne ko Fall mu ne ko fu ngeen dajje njabootu seigne bam lo wara tak ci ñom leneen tak yeen ngeen yóbbu tuuma ñoom ñu set nako ndax cang gi ak njam gi fi ne mm. Mourou Moussa mu ne ko Fall mu ne ko jëlal cang gi jox wak seigne bam te téye njam gi de da dem ba seen njaam gi yéen moo di gën càng gi sëñ Ahmadou Ndiaye Grand xam na ne fi ne njaam gee dox ah. eh, eh, sëñ sëñ waaw ah. sëñ waaw njaam gi xat na <laughs> waaw waaw nañ bu baax di jaax jëwriñ Alioune Thioune ak mboolem euh, mbokk yi nekk si euh, télé bi ndax loolu moom bu doon bu def moom ñu ne ñu ne dama see far waaye nañ si jotaay bi ba au lieu de dix minutes moo ñu dese woon wala huit minutes léegi trente minutes moo ñu dese macha allah noonu lay loolu nag mu ngi doog am si man kay sëñ ah, sëñ Alioune koy xamoon naa ne fi mi ngi jàkkaarloo faaw faaw faaw mu mottali ci dara waaw sëñ Mourou Sall defal Oke, ko gis de dara sëñ Amadou ok bismillah ñu bàyyi iya, mhm. kon ñu sof ci kàddu yi fi moom heure bi xaw na maa bett ni Lizi ñuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sahaba yi wala sun borom waxoon sahaba in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni mhm. fekkee yàlla mi ngeen bëgg dëgg la mhm. topp leen loolu la suñ tubaa wax mag ñi dañ leen ngi moy fe yalla nek doxop juroom ñaar fukk yobbu fu nit te man ma ngi ni hmm. kon moy yalla mi ngi bëgg bu dee dëgg la rek top leen motax sey ibrahim Taraw liw sun seyñ bi hmm. melni ko mu soxla sun borom xam na ne bu jàppee sëñ bi àgg ci ndé wax seyñ bi da ag ba paré hmm, motax mu mun leen yàlla nga nële man ma ngi ni te tousul day wax ni alquran buñ ko doon firi bismillahir rahmanir rahim la tambulé war si la jeexe loolu li nga ciy rek moy bu bor bi jallé koo séenatib jàmm la <laughs> hmm? waaw buur bi jàllee rek koo séenatib jàmm la hmm. hmm. buur bi jàllee rek koo séenatib jàmm la buur bi nag daa sàkku xeej teg ko ci digg bi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo bëgg ci buur bi ci xeej bi ngay jaar loo bëgg ci jàmm yi ci xeej bi ngay jaar xeej boobu daa amul xeej muy Sëñ Tuubaa moo tax seex bi woon soxla ca ñee xeej yonent boobu yi la téye ndax xam na ni fu fu mu teg tànkam mu teg fa tànk <laughs> yooyu yëpp daf cee daf cee mat a bàyyi bu leer waay waaw misaal bu leer daf ci am solo trop mhm. parce que nit ñi dañoo dëkk ci réew mi ñoo xamante ne ni dañuy jël aay yi nga xam ne suñu borom da ko tëg koo naa feq yi mhm. da ko àtt ci kaw jullit ñi taxuñu ko bëri mhm. doon léeg-léeg nga dégg ñu naan maa salakum fi saxar lam nakun minal musallin aay ba yemul foofu ah bàyyi julli ak lépp lu baax Hmm? waylun lil musallina hmm. aay bi yemul foofu ah dañoo boole julli lépp lu bon moo tax hmm. julli amul njëriñ kon kon kon ni ñuy firee ah, bokkut ak nga gis ni kon relation yi sëñ Moussa am ak Cheikh bi waxoon naa fii ci bokk gi bi ci des mooy Cheikh Mouhamadou sa bi mu gënee àdduna Daaru Salaam la gënee àdduna waaye daa fekk sëñ bi nekk ci li antiqua nekk ci xalwa mhm. ci wër pàkkam bu tedd boobu yii di Touba. Mhm. mais bañ ko annoncé bañ yónnee xonnu ndooy mu jaar ci sëñ Massamba Faty Bousso mu wax ko mhm. sëñ bi amoon na lu jël jox ko Cheikh Ibrahima ne ko joxal ma ko gan googu doon ñëw kon gis ni seen duggante yàgg na <laughs> mais Cheikh Ibrahima dañ ni gan guy doon ñëw sëñ Bamba di ko jox addiye addiye Ibrahima Fall du ko fekkee wut yëfam dolli ca yóbbu te booba la sëñ moo di door a ñëw jamono Cheikh Ibrahima nee na ba mu ñëwee ñu yëglul ko muy dugg foofu da nga ci gisaat ak sàmm gu wér ba mu ñëwee ñu yëglul ko soxna Aminta Lo génn di ko may ndax duñ bokk tase ci biir néeg ba nee na keroog la bëtam jëkk a tege ci kundi kii sëñ Tuubaa ak sëñ Bàmbaa ko yor te xoola sañ cib Daaru Salaam ak fa mu doon wa sa sin la kii ñëw te moom sa sin la commencé ànd ak sëñ Tuubaa ndax sa sin la si ay la Mamour Anta Sali nelaw mu jaayanteeg sëñ bi ñu def fa ay weer yu néew jóge fa ñëw Mbàkke Bawol assasine daal tero ba sasin juróom benn at muy door gis kuñ nan ki señ Bamba ko yor loolu mo lay xam ne sàmm ga nga gis ni kon ku sàmm xolam ku sàmm ay cëram moytandiku wépp ñaawuf teef mm-hmm. la ci sëñ Mortala waxoon rek kay leen ko gis kay leen gis ko ngalla ci jamono wayam doon way waaw nga gis ni kon relation yi yàgg na waaye da nga ci gis ni Cheikh ibrahim li ko dal mooy reg réglé lu jafe la nag reg <laughs> soññ na ab xolam bam yew mu yar ay cërëm bam yar mhm. xol bu yanj cër yu yar motax lim doon tegoo ci liggéey ñu japp ni mënu ko mhm. té loolu la dal suñ tuba ko dal rek tuba dañu woon xal lahu fi aitabil jismi takraru li annahu lil huda wa nur jarra yaloo mu jismi da ban fil julus nga xam ne toujours xol bi lim bëgg ci jaamu yalla cër yi attandu ko loolu mo dal sey nga gis ni muy dugg kon relation bi mu am ak sëñ Modou mhm. yàgg na ba muy dugg si mhm. néeg bi ba muy dugg si néeg bi ba dugg ci néeg bi mhm. dañ ko yëglul mhm. soxna amintaloo génn may ko mu door a dugg si ci biir ngir joxe addiya ji dañ ko yónni <laughs> waaye foofu danga nga fay gis sàmm gi mu sàmm boppam nga xam ni loola lay dund ba ci këram ni mu ko organisé ak ñi dañuy nettali kuñ ci mu sawoo nga wuyoo ci kër jigéen ñi dañ la duma ci ëtt bi waaw kon li ñuy wax ci bitti naan Cheikh Ibrahima may na jigéen ñëpp du dëgg caaxaankat yee koy wax <laughs> doxiwut noonu ah, nekk nekku nekkul woon di càkkaay nekkul woon di yaatayum fenn fu ne fu ko neex hmm. déedéet ndax xoolal sàmm googu am hmm. ak nun léegi nun ni nuy dund nga xam ne daa daanaka jataayu jigéen la ñu farakante boo wax ñun la garawut hmm. ni dama àggugul fa mi yi waaye dana garaaw <laughs> waaw moo xam ne moom dund na de samp kër da nee na Cheikh Ibrahima ne ko woon dem leen wuti yàlla ndax lu waaye di taxawal ci àddina caay caay mën na ko ba mu des yàlla sax werante mhm, sëñ sëñ Tuubaa waxoon na ko sëñ Fallu mu teg ci keroog la bàyyi nangam kay keroog sëñ mu sëñ Tuubaa waxoon na ko sëñ Moussa wax ko sëñ Fallu daa ñëw wax sëñ bi ni ko damaa bëgg nga abal ma téere mun jiit mhm. mooy dictionnaire mhm. sëñ bi ni yabal ko ca gaal gam nekk sëñ Fallu dem xool gisu ko sëñ bi jógal boppam ñëw yëkkati gaal ga génn téere ba jox ko ni ko Mouhamad Fadel téere bi loo koy doyee mu ne ko daam baati arab yu xaw a jafe ma di ko ci xool mhm. sëriñ bi ni ko xoolal ma ci baatu xudan xudan xudan mooy ak njub mhm. sëñ lu xool baat ba ba koy bëgg a wax primi sëñ bi dañ ko primi mëtumaa wax dama bëgg ngeen xam ne adduna lu ngeen fi saytu lu dul baat boobu yi mhm. amul njariñ ab majjosu leen ko ëppale baat boobu bii ab majjosu ko am ni ko Mouhamad Fadel ndax xam nga garabu ron mu ni ko ah, am na ku nekk nii ci ëtt bi de fekk garabu ron nga mu ni ko néew na nga dégg ko ne wàcc leen gi jub ko musal gone yi lu dëng dëng du ñàpp ron jub ga rek ko musal mm. moo tax jub rek am solo nga gis ni ginnaaw yooyu yëpp nag ndax ër bi mi ngi dem mm. te daa am taxawaay yu am solo yu ne ci kanam yoo xam ne mat naa mm. leeral mm-hmm. Mm-hmm. ndax Cheikh moom kenn ku ne gis na ni mu doon dunde ak sëñ bi kenn ku ne itam gis na orma ji nga xamante ne ni moom la jox doomi sëñ Tuubaa yi mhm, mhm. ak orma ji nga xamante ne ni moom la jox mag ñi nga xamante ni ñoom la fekkoon ci sëñ bi mhm. kenn ku ci nekk wëllëre wa nga xamante ni moom la seq yow moo tax toujours damay doon misaal ni mag ñi dafa mel ni ay tefas tefas gi wër géej foo ci jaar mën ngaa dem ci géej waaye tefas gi la muy nangu tefas gee du ko nangu mooy hmm. tefas yi bokkul waaw moo tax mag ñi wuute waaye ñoom ñëpp fi ñu doon ci sëñ bi lañ jëm ci sëñ bi lañ jëm waaw mais la mu nangu tefas gee ci sëñ bàkk bu su du ko nangu looloo leen wutale rek mi mm-hmm. ngi mel ni tefes gi ci sumbu jum rek am na lu muy nangu loo xamante ni géej géej waaye nangu mm-hmm. wute nañ loolu sax mm-hmm. lo waaye yëpp tefes gi la ndoxum géej gee fi ne rek muy bi rek la waaw lu bi la jubluwaay suñ borom la noon noonu la ko bëggee waaye ginnaaw boo xamante ne nii sëriñ bi ñibbisi na Touba foofu liggéey bu am solo defee ne boo xamante ni nii bi la taxaw na ca taxawaay boo xamante mënu woon a ñàkk wala moom rek ko mën ndax sëñ bi dafay bàyyiwut officiellement loo xam da ko bind li moo fi jógee bopp bi yoon wi na ci Modou Moussa Top mm-hmm. loolu sëñ bi bind ko mm-hmm. Mm-hmm. donte xam nañ ñi waajur bu fi jógee ci lislaam doomam ma koy donn waaye loolu xewut woon ñu gis ni itam ni sëñ Modou mënta imposé ni maa fiy toog man ngeen di topp sëñ Modou mënu ko Hmm. mooy si njëlbeen ba ni Serigne Touba mënul woon ñàkk hmm. waxee boppam hmm. nanga boppam loolu moo ko dal euh, ndax sëñ Moussa dafa daan wax ne ak taalibe bi ab sëriñ da ko mënta jàngale ndax mooy bàyyi leen ñëpp jàpp ma nee na loolu asgor mënu ko wax morom bi ñëpp jàpp <laughs> loolu asgor mënu ko wax morom bi moo tax suñ suñ Modou am ndimbal lu rëy loo xamante ne fàggu te fukk sëñ Tuubaa ci programme ndax damay wax ni àdduna fi mu doon ni foofu mos a gis ab xeex judd fa tey ma yilif laa ko indi <laughs> waaye yaanu yilif moom kenn du ci xeex waaw tey ma yilif la moom foofu bal mos a tàkk ci adduna rek loolu ko indi léegi nag sëñ bi sëñ bi dem na mhm. teewul nag am na ay junji sëñ bi doon junji ak yoo xam ne doon na ko seq ak sëñ Modou sa mhm. ndax bari na ay jataay yu ñu wéet mhm. yoo xam am na boo xam daa woo sëñ Modou sëñ Modou dugg si ci biir ñuy dugg si sëñ bi ni ko tàllal ma sat la googu fekk sat la gi daa te sëñ baa ngi ci biir te sëñ moom bu yëkkatee satla gi bunt bi day tëjati néeg bi day lëndëm mhm. mu bàyyi ko fa dem wuti lu dëgër ñëw geg bunt bi ba pare jël satla gi ànd moom dugg ci biir mhm. sëñ bi laaj ko noo def ba bi nga jëlee satla gi ubbeel bi topp la mu ne ko dama ko ubb jël mu topp ma ma bàyyi ko fa dem wuti lu dëgër lu ma ko gegee mhm. door ko andi mu ne ko xaaka sax Modou Moussa bala ngaa jëleeti lëf ci barab da ngay xaar ba am lu ko fa mën a wootu waaw hmm. na ko itam iza ay xasat ko xurubul ayda fa nabih la amiran suma nam moy bi koy denk mbirum jumaaji tan ko sama loxo dam na sa loxo dam bobu ni ko amir ab soldaar la bo xamanteni ni da manon lam don def lol te am xere ab buuram diko tag tagg ni bo tëddee bu guddi say non yela ba nga deg buru bi neena neel feug amir bam yek buru bi nga dem te xamni la ci war amir dana ko def seigne tubaab ya. bi kon yoy sama amir ab seigne bi don la jëm waye nag seigne bi adam le 19 juin mhm. muy ñu yóbbu ko Touba talaata ci guddi. Mhm. di fukki fan ak juróom-ñeent ci aw tamxarit. Mhm. Mhm. ba sedd di ba di ñaar fukki fan. mbir ma commencé siiw. fenn fu ci nekk nit daat fay jëm. nit ñi itam booba nag jaaxle war na ci ñoom. ndax Sëñ Tuubaa ak ni mu feese jamono ak ni mu toll. xëy xëy ne la dem na. wax dëgg yàlla nit ñi kenn du leen yàtt. te ñun si Modou Moussa def si ak mat nag ba Moussa def na ci mat la ku sëñ bi dénkoon mm-hmm. naa dem Touba bu xat damm mm-hmm. def na ko def na ko def na ko macha allah mm-hmm. ndax bu xat damm woon rek sëñ bi dana des njaareem waaw ndax booba mag ñi installé woon nañ njaareem fa lañ ami kër naar naari libaane yi installé nañ commerçant yu mag yëpp installé nañ njaareem a ngi dund waaw buñ ca waxtaanoon rek ñooy opposé wu ci ni sëñ bi nañ ko def fii mooy ëpp waaw ñu naan nañ ko yóbbu Touba mm-hmm. ndax booba Touba benn béréb almet mën naa tas dëkk bi jaaru nekk fa neexu a nekk itam mm-hmm. booba yenn nekk waay matuwaay néewu mm-hmm. moo tax jafe-jafe yooyu doon am gouverneur général ñëw na fa ca ëllëg sa alxames ja xool situation ba dëkk ba ba jëloon fa arrêté ni léegi nañ fi indi ay soldats pour sécurité bi parce que ni mu gis murid yi di ko def waaye ñu wax ko ni ko bu dee ñoomu képp coow du am dara du am. Mhm. bàyyi leen noonu rek. Mhm. mu ne kon bu fi kenn def 48 heures. Mhm. waaw nga xam ne ordre boobu la fa bàyyi woon. njaboot gi daja nañ. ci le 23. sëñ bi demee ci le 19 le 23 juin. njaboot gi daje nañ. xool ba xam ku ñu jiital. xam ni seex su mag seeg mbokk yi. ñoom képp beru nañu xool. mais bañ bañ ñëwee ca ndaje ma. Eh, wax jib na fa kenn ku ci ne wax xalaatam mm-hmm. mais sëñ Mandumbe moo ci àddu wax ni ko Ibra Fall mm-hmm. eh, sa tur wa woowe ñu la doon wooye mm-hmm. tey a taxoon làmp niital ci sëñ Mandumbe waaw ko Ibra Fall niital loo gis mu ni ko Modou Moussa rek laa gis de loo ko Cheikh Ibra wax ni ko Modou Moussa rek laa gis de léegi sëñ Mandumbe ni ah man de bët yi sew na waaye maa ngi damaa ngi gis de man de Modou Moussa rek laa gis léegi sëñ Ibrahima ni ko Modou Moussa sees bi boo ci toogul kenn du ci toog ban boo ci toogul kenn du ci toog waaye teewut taxut ñu tënk dara sëñ Modou itam daa bàyyi noonu rek am nay waxe yeneen wax yu fa jëpp ak sëñ Balla Fally addu ca yeneen Balla Fally de moom lànk na lànkale Mandumbe sëñ Mëndumbe itam nee na Mëndumbe lànk na lànkaale Ibra Fall mooy lañ leen ci doon sant loolu mhm. bokkut ak seen xalaat ñoom mhm. jaayante ak sëñ Moodu mhm. ba ci la vingt cinq gouverneur général wax commandant du cercle bi ñu ko na na woote na woo seex sepp ci aju ci yoonu mooy na woo itam chef de canton yi commandant et Mopal booba nomination bu bees la mu woo leen gouvernance ba digg bëccëg gouverneur général door a ñëw hmm. nga xam ne am na ci mag ñoo xam ne sax bëggoon nañoo dem waaye commandant bi moo leen wax ne leen xàmmee naa ñëpp hmm. ku ci dem danaa la boole ndax hmm. gouverneur général moo leen soxla gouverneur général dikkee mu wax li ma Fall ñu ko léegi na ànd ak commandant ak chef de canton yi ñu dem ci tennis bu Jurbel ñoom ñu réunion fa seen réunion seex si ak njaboot gi mu ne nañ dem kër gu mag. Mhm. gouverneur général nee na mi ngi ñëw. Mhm. nañ dem ñu daje waxtaan. ba ñu commencé ca penc ma ñu nekk fa gouverneur général ñëw lalal ko taabal tegi mu toog mu wax ni léegi li mu soxla li mu bëgg xam mooy mhm. daa mënut ba sëñ bi demee ba léegi ñëpp a ngi koy woo. te loolu mënu cee wéy. waaw ñëpp a ngi koy woo. kon nga xamni ni booba ay mm-hmm. pexe ngi jup kenn ku ci nek di xol mm-hmm. relation yi nga am mm-hmm. xayna pour kenn ku ñu japp ni war nga mëna jitu mm. ndax sëriñ bi doyna len bañ mandi kenn ku ci ne itam yeug nga ni am nga responsabilité ci sëriñ bi waaw <laughs> gouverneur général ne nak légui dama mënut ku nek di ma woo mënuma saa yu ma soxlaa yoonu mourid wo ñepp mënuma itam su ngeen ma soxla kenn ku ne di ma léegi nga bëgg genn waxtaan jiital kenn ci seen bi mm-hmm. dégg nga mu Moustapha ndax mooy tawub sëriñ bi moom moom la mën a jaarale kàddoom mm-hmm. sëñ Moussa wax ne ah loolu de bu fekkente ne ni àgg nañ ci moom faw ñu wooyu bàyyi Cheikh bi mm-hmm. ndax moom moom fekke woon cosaanul mbir mi yoon wi ku sëñ bi sam fekke na cosaan la mooy am na ci luñ ko ca sédde ndax ginnaaw xar kanam yi muy gisoon yëpp gis na leen Cheikh ba mm. dong la gisut te solution amagul mm. kon jàpp nañu bu ñëwee solution dana am ak wér xeebut ña waaye jàpp nañ ginnaaw ñi ci des ñëpp ñu ngi fi mm-hmm. mm. te solution amul kon nañ ko xaar moom mu ñëw ba xam mm-hmm. solution la léegi ñu wooy ñu wooy Cheikh Ibra kër mu ànd ak mbooloo ñëw bi mu ñëwee bi mu jubee sëñ Moussa rek ci distance bu sori la daal di dindi kaala gi mu tegoon ci bopp bi ba ci baatam sukk ay bëti woomam làmb poosam hmm. raam nuyu sëñ Moussa sotti na hmm. nga xam ne foofa dong la ko yemee hmm. gouverneur général ragal bi mu yoroon mu fëgg ko ci taabal ji fëgg fëggaat fëggaat ne silence silence léegi mu ni laa jotuma kenn léegi solution am na solution am na ki ñu doon xaar dikk na damaa defoon noonu ki ñu doon xaar bu ñëwee mooy doon seefu yoon yi parce que ñoom seef lañu xam xamuñu waaw <laughs> mu ni ndax autorisation bi ñu ko jox joxuñu ko kenn ci yéen. dëgg la bi ma posé question bi nañ ni nañ xaar Cheikh la mu ñëw. Mm-hmm. kon moom déglootul ñii moom Cheikh Ibra la doon déglu. mu ni ndekete ki kii ñëw moom ndeke jaamu Modou Moustapha. dëgg la. sëñ Wadjir. laay laay léegi tubaab bi daal di daal bis ni ki tey jiital naa mm-hmm. Mouhamadou Moustapha. laay laay sëñ Wadjir. bu ma déggati kenn ku ma woon nag te képp ku fi yëngalatu dara ma ak te bu ko gouverneur général waxee danañ ko gëm ndax gis nañ fi mu jaar ak sëñ bi te xam nañ caay-caay tubaab bi donte la muy def yoonum néewuñ mhm. waaye Cheikh fi mu sëkkoon ba tiwoon lu yi jàkkaarloo gouverneur ko ni ko hey mhm. wéyal ak sa sa adduna mhm. te bàyyi nag suñu diine laa ikraha fi diin moo lay xam ne Cheikh Ibra jàng na aaye ku jàngut du ko indi nga ne mu ni ko Cheikh Ibra ko joxoñ ni ko hey wéyal ak sa aduna da nga artu de te bàyyi noog sunu diine la ikraha fi din mm-hmm. diine amul forcé daani mm-hmm. mm-hmm. leen Modou mustafa mi ni nu bàyyam doye woon ba nu ak mom kumu doy jox ko sa bop kumu doy nga seeti kula doy nga jox ko suñu bop nun nimu doy nu and ak mom ci waji lay lay yalla ful la géeg mat gi ah, nimu doy ñu and ak mom mag ñu bari foofu lañ jëm dal jox ko bop nga gis ni Euh, la sëñ Moussa ko doon wax rek même bi sëñ bi demee mu ñëpp dem moom mu des fa mm. waaw mm. Moussa taxoo ko yox yox yi daal di ngoy ci Moustapha ci Moustapha mm. nga xam ne am na listifa am na tànn <laughs> Moustapha day eh. wa da <laughs> ko li ma xam na dencub sëriñ bi la mbir la nga déggaat Bay Jaxate eh, man nangu naa ah. nangoo ma war ñëw ci yow ñëw naa ci yow <laughs> mu ne nun ñëpp dañ daan bañ noo bañ a kos kos loo ko bañ ko lu gën te ah. nga xam ne kon mag ñi xam ñu toppe day seen wàll waye du tiagne nak ak yees motax tax ñuy toppe déedéet mm. topé day seen wal buñ doon dem aras ak ñëw dañoo wara topé hmm loolu la yalla dogal moy nangu dogal suñ borom ñu ñu jiital seen wul sax teewul nag amut amna yenen yo xamanteni ni mm. ma ngay xew ci biir waye matuk suñu Moussa ak jikko ju rafet ji mm. taxna yoy yooyu yëpp nga xam ne mu ko tànnee ba pare ñetti at yëpp nak ah, mu dar ko rek mu dar ko mu dar ko ndax bañuy yonal yoonal bi rek dañu ko lo bëgg jëndal lu ñuy jaay rek jëndal lu ñuy jaay rek ndax ca kàddu yu jëkkee suñ moo dañu woon jaay dara nañ ko fi bàyyi mm-hmm. mag yëlif ko mm-hmm. nekkal fi ñëpp mm-hmm. ñu ni déedéet koy jaay booba la ko chebre ne ko loo loo bëgg rek jëlal boobu comme gaa ngi fi dogu lool ngi fi comme lépp lépp ko loo bëgg rek lu ñuy jaay rek jënd daañu fay loolu loolu loolu la ko chebre wax lool la ko sëñ Mandumbe wax sëñ Mandumbe ni laxasaay ga ma takkaloon sëñ Tuubaa feddali waat naa ko dana lëggéeyal seigne Moussa lu upp lama defalon seigne touba suñ wadira mm-hmm. programme seigne touba la Cheikh Ibrahima Ndiaye danaa la jàppale seigne be mm-hmm. nga xam ab ñag la ci mm-hmm. ndax Cheikh Ibrahima ab ñag la ci yoon wi ab ñag day gëna ñagas la mu ñag wara borom touba la ko ne ko ya ñagu Cheikh Bamba bu ñag mourid bi la ñag yaq na ya mourid ñag day gëna ñagas borom tuwaalo ñag ko mm. gis ni taxaway yoy yi day yu am solo waaye sëñ Moussa jikkoom ak melokaanam mm-hmm. moo tax la ko sëñ Moussa kay di way daa ah, ko am nga man nga am nga mantu am nga galan mm-hmm. yow li nga am bamba sax amut la ne day bamba dañ ko daan sëfu ay mm. te yow tubaab bi jox na la mbég sëñ bi tubaab yi dañ ko daan sëf aw ay rek waxtu ñu aw ay mm-hmm. ah, moom nag tubaab yi jox nañ ko mbég mooy jox nañ ko mantu jox ko galan kuñ tëj mu tëjilu ku ñu waaj a tëj bu fa yónnee ñu bàyyi ko fo problème amee ñu ko xam ne loolu jikkoom la mm-hmm. moo tax suñ mortala faal ba mu koy way dañu ko waaw góore waay saa waaj mm-hmm. mat buur madub sëriñ mm-hmm. waaw yor cangu taalibe Cheikh Ibra gi ko taalibe suñ tuba taalibe Cheikh Ibra gi la yor ak canguk suñ tuba gi moom ñaar yooyu la suñ Moussa boole waaw taalibe Cheikh Ibra gi la boole ak canguk suñ tuba gi moom mooy mooy ci jëm su ma jëlee kàddu gi dina am ñu ma mere waaye faaw ma jël ko rek waaw <laughs> ma jël ko ñu àndaal sag sëñ dem fekk it ndeysaan waa Daaru Xuddoos di ah. ziyaaraat bu baax ni ko waxee sànq hmm. sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké mi fii wuutu Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim di ko ñaanal mu yàgg fi hmm. loolu tànd ko wér xam ngeen ni waa Daaru Xuddoos gépp hmm. macha allah dañ ko dañu mooy siyaar bi ñuy def rek muharram gu nekk ashura gu nekk euh, keroog bisu ashura siyaar bu am solo kaddu yi nga xamante ni moom la dénk mbooloo mi ñu ànd teewlu ko te ñëw sëñ Cheikh Fall asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalul sunu kilifa cheikh ahmadul moxtar mbakke mi fi wuutu cheikh moustapha al karim ak mboolem njabootu cheikh mohamadul moustapha gi sunu taxawaay nag mooy laa yasbiquunahu bil xawl wa hum bi amrihi yamaluun kon sëriñ bi mi ngi leen di nuyu yéen mbokk yi fi teew yépp doomi boppam yi njabootu cheikh mouhamadul moustapha gépp di nuyu bu baax ahbaabal moustapha di leen xamal ni hada al yowm yowmun mubaarak wa lana fihi shay'un fihi lan nusharik bis bu màgg ngi nii bis boo xam ni njabootu cheikh moustapha gépp dañoo daje di siyaare cheikh mouhamadul moustapha Daaru Xuddoos amul bis bu ëpp boobu bis boobu sëriñ bi nee na bis bu rëy la ci moom lii bokk na ci responsabilité mu doon dox ci kër gu nekk kenn ku nekk mu saafoo tey yow kenn ku nekk mu woo la xëcc la ci bis bii bu ngeen amee taw feexe dajaleel ko seen bopp daje njabootu Cheikh Moustapha gépp takk ko nekk wenn say kon yéen da ngeen ko noppal ndax lii ngeen def moom la waroon bis bii ci suñ kanam nag sëriñ bi nee na yitteem yépp guddi ak bëccëg moom la nangeen ko def seen i yitte muy bisub Seex Ahmadou Bamba bii lépp lu jag ci àdduna jag ëllëg ci bis bii la jage bu sëriñ bi desoon ci loxol tubaab bi lu bari dana baatin bi moom dana sotti waaye li lii nu am ci saahir moom wóor na ne desu ko am li Seex Ahmadou Bamba waxoon Cheikh Moustapha mu indi ko fii loolu su esegoon lii ñu am yi tey ji loola it du am kon euh, bis bii di ñëw muy bisub Cheikh Ahmadou Bamba boobi lu sotti lu ne ci la sottee bis la boo xamante ni Cheikh Moustapha daana wax ni ku fi jant sowe bët seta la fi nga fanaana fi lu neex sunu borom boo xëyee mel nga ni bis ba nga juddoo woon ci set ci ay bakkaar kenn ku nekk xam na ni amul benn liir buy gane àdduna indaale bakkaar képp ku fanaan Touba bisu isruuna muharram guddi layla guddi mu aram te fanaana fi li neex sëriñ bi neex Cheikh Moustapha bu ba setee waatal ni yaa ngi liir buy soog a judd yéene yam ki set kiy bàkkaar loolu nag bis bu mel noonu bu nekkee ci suñ kanam sëriñ bii fonk ko nun euh, ñëpp muy sunu kilifa bëggam gépp di lu jagal bis bi bëggam gépp di lu bégal Cheikh Moustapha bëgg bëggam gépp di téyal sëriñ Moodu Moustapha la ko sëñ Touba dénkoon ba mu andi ko jëme ko kanam gën koo rafetal la tàmbalee ci Cheikh Ahmadou Mbacké di dox ba ci moom lañ ca doon jëf lépp su sañan jëfaale leen ñoom ñëpp ba jëf-jëfi boppam te loolu yéen ñii yéen di ay jumtukaayam yi muy àndal yi muy àndal ci bis boobu ngir liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba sëñ bi mi ngi sant ñëpp di bal ñëpp ak di balu ñëpp ak di leen di leen di leen di leen xamal ni lii ngeen def rëy na ci moom sedd na xolam yàlla na sëñ Tuubaa wuutu ko ci yéen seral seeni i xol yàlla na Cheikh Moustapha wuutu ko ci yéen seral seeni i xol wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu daa xiiru ak ñay matt seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ jërëjëf euh, sëriñ euh, Ndiaga saal Saliou ba tey di jaajëfalaat bu baax El Hadj Fallou Syll si élément yu am solo bi ak farlu gi mm-hmm. incha allah xam naa ñu bokk ñun ñëpp waaj màggal gi rek ni ki gaaw bi incha allah. di hmm. euh, kon euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram hmm. euh, wala waaw di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram waaw di di di ñaar fukkeel gi. Hmm. incha allah ñu fàttaliku jëf ju rëy joojee Cheikh Mouhamadou Moustapha Al daal di def. waaye jotaay bi xam ngeen ne ajjuma bi di ngeen ko mën a toppaat sëñ Mamour ñu profité si mm. laataa ñuy jox sëriñ Cheikh Fall Taïf ngir sax xam naa wërngal bu mujj bi ak tàggoo mm. euh, xam nga ni jamono ji yëpp ñu ngi jàllale mm. benn euh, ab audio ci ah. whatsapp yi mm-hmm. di wax naan euh, suba si àllarba gi mooy àllarbay carré loolu di fàttaliku ni ab émission la boo xamante ni sëriñ Xaadim Njaay Kayaar ak Baye Ibrahima Thioune Madior ak Serigne Gueye Mouride Sadikh ñoo ko defoon si mm. émission bi ñuy wax si rajo bi delloo njukkal auditeurs yi mm. loolu nag daaw la woon gannaaw màggaluk tubaa mm. ndax xam ngeen nii lu si bëri dañ naan àllarbay kare mooy euh, àllarba bi mujj si weeru safar ci lañ ko doon fàttali altine boobu di wax naan àllarba bii ñu ñëw am na nag ñoo xamante ne xëy na xamuñu lu si jublu tey la talaata ñu koy jàllale euh, ci weeru muharram bii ñu nekk di wax naan àllarba suba gii di euh, fukki fan ak juróom-benn yaakaar naa si weeru muharram hmm. ñu bëri di wax naa mooy àllarbay kare loolu ngeen xam ne yéen ñi koy gis si audio yi si whatsapp bi hmm. euh, mbir mi demeewul noonu hmm. émission bi daaw la woon àllarbay kare bu naree jot incha allah ñi ko war a euh, wax dinañ ko wax fi ñu ko war a mm. waxee ñëpp dégg ko kon ñu bàyyi xel bu baax yenn kàddu yi ñuy gis ci réseaux sociaux yi mm. di ko tasaare mm. euh, euh, maanaam gëstu dafa am solo lool di jégaluwaat loolu dañu woon nañ ko leeral ndax ñu bare woote nañ te comme si Lamp Fall lañ ko jàllale woon mm-hmm. jar na ñu leeral ko xam ni mm-hmm. àllarbay kare daal ñu si xam mooy àllarba gi mujj si weeru safar te weeru safar bi teroogul kon nañ ko mm-hmm. bàyyi xel baax sëñ Cheikh Fall Taïf jotaay baa ngi di si jégalu mënu woon ñëwal ñàkkal leeral xam naa ni kàddu yooyu tàggoo rek <laughs> waaye di wax ci jotaay bii dina bàyyi waaw bii si Ahmadou doon wax <laughs> maanaam mooy jotaay bi gouverneur général woote woon Cheikh Sepp uh-huh. ak kilifa yi xam nga dafa mel ni maa ci sayir si ni mu ko waxee uh-huh. Cheikh Ibrahima dafa réglé problème bi uh-huh. waaye ndeke dafa am baatin bu ne ci biir parce que tey jii ba gouverneur jëlee kàddoom wax ne bis ni kay tànn naa mus Cheikh Modou Moustapha mu ne fi mhm. bu Cheikh Ibrahima jëltoon kàddoom mhm. ñu continuer ko mhm. kon mën naa fi ne palu xalifa général des mourides saa bu amee gouverneur la koy fal waaye da koo wan ne ko yemal sa adduna ca bañoo ko suñ ngóor ca ma yemal sa ngóor ca ba ca ca ca bañ ñun léegi ku ñu doon ñu tànn la léegi loolu fi ne moo moo continuer mais bu fekkoon léegi waxu ko woon loolu hmm. kon mën naa am fi ne tey bu ñuy fal xalifa général des mourides hmm. gouverneur gouverneur mën na ci am ab rôle loolu Cheikh Ibra moo ko dindi ca it fi may jeexale mooy ca gis nga dafa wax dafa waxoon ci ci ci yoon woowu hmm. maanaam suñu soxna Seck Baye Fall moo ko nettali wax na góor ga sëñ bi moo waxoon maam Cheikh Ibra tàggu ko ni ko damay dem mu ne ko dama fi bàyyi mu ne ko déedéet Seydina Ababacar maanaam daan dag yonte bi ñu taxawal lislaam mu dem bàyyi ko fi ñaari mu taxawal ko aw yoonam ma nit noonu laay demee bàyyi nga taxawal ma sama yoon dëgg la si jeexal de xam naa lu duuf si nag yu xajul si cunni sëñ njega moom mu ne nii yaramam dafa hmm. hmm. nga xamante ne yàlla dogal na moom lañ dénk wàllu communication màggal gi hmm. waaye di bu baax a baax euh, Serigne Ousmane Mbacké mi nga xamante ni moom la Serigne euh, Ahmadou Mokhtar jël lépp si màggal gi teg ko ci loxoom ci jotaay yu am solo yi nga xamante ne moom lañ ñuy def sëñ Amadou Ndiaye Guirane mm. xam naa ni eh, kàddu yooyu tàggoo ah. te bu noonu xam naa ni jotaay boo xam ñaanaat lañ la ko fii gannaaw màggal gi incha allah diggante màggal ak gàmm looy tàggoo incha allah incha yi da mooy xam naa xëy na waxtu wi xat na mm-hmm. bëggoon wax lépp xëj waaye taxawaay la daal yu am solo yu mat a bàyyi xel mm. muy rôle bi Cheikh Ibra taxaw mm. ci gannaaw sëriñ bi ak jabootu sëriñ bi ndax da daan wax ni doomi sëñ ba mooy wax kaay ma yónni la waaye doomi sëñ bàmba kenn du ko wax kaay ma yónni la mhm. loola lépp da doon wane rek fii war a teg njabootu sëñ bi mhm. doonte sëñ bi moom ci biir bàttinam mhm. doon na waajal ñu leen di wóotu seen gannaaw noonu tam la doon amee ci taxawaayu tubaab yi ci Sénégal moo tax léeg-léeg boo demee ci archive tubaab yi dañ naa ñoo inséré xilaafa waaw am na ci rôle buñ ci joué ndax ginnaaw loolu rek fi doon ni commanda bu ñuy wax sans ñëw na Touba boo xam ne dajale na kilifa yëpp bi muy ñëw Mounirou Thiaw la àndal Mounirou Thiaw moo doon interprète am bi mu dikkee commandant bi nañu ko jox ma oof bi ci biir saag bi mu génn benn nen jox ko mu yëkkati nen bi ba ca kaw mu bàyyi mu ni tasar mun leen ko ma moytuwut ci Modou Moussa mi nii la lay def